sëriñ Seexuna Lo Ngaabu ak sëriñ Sidi Muxtaar bi moom rek taxaw loolu kon képp ku ko mën bu jugee ñu daa ko wàcc ay tamit léegoo ko liggéey bi tubaab lépp dañ ko dugg xam naa ne ñu xamal ko nii sama bi baax yi toog ñoom dañoo waroon am benn micro rek directement moo gën quoi ah joxe na ñetti téeméeri million yu mag ñaar mais parce que dem man maa woo woon ni ma Abdoulaye man damaa sopp dama ko ko di démb lu ko waral nag Aladji Ndiaye 2STV million télévision bi jox ko sëñ Bamba Aladji Ndiaye ñu jox télévision bi ba noppi ñëw tam moo jël téléphone woote yu saak ñu ko ni dama ko sëñ Bamba yi ñuy def muy joxe loolu Abdoulaye Ndiaye sa xarit parce que dem ni may wax xalaat bi ko yónnee moom it joxe woon na million joxe junniy litre essence ak junniy litre huile diw délégation soxna Bintu bi nee mënta ñàkk a jàll. mbooloo mi yëngal mbàkk naa suñu xel jàll na ko mais bind bind ko wala li gën bind ko wala sama bay jàll li mu wut dama jàll li yaa tey yàlla jàpp ko def ak sëñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Moustapha borom du kayal kon ñu ngi tàmbali waxtaan bi may Mbacke laaj naa un million ak la ma am jox ko te joxe naa oto bi sax laa joxe woon waaye gars yi jot na bisimilah boo kiiwoon tuuti rek may may. alhamdulilah rabbil alamin barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd di nuyoo waa daayira Nooru Daarayni Touba ci kanam bépp di ko teg ci sa loxo yow mi nga xam ne yow la sa mag lu baax yi tànn te doy loola jox la seen kaddu te bàyyi ko ci seen Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne jullit yëpp ak murit yëpp ñu ngi maase di ñaan yàlla mu yàggal ko fi lool te ànd ko wér di borom xol bu yaa di borom xol bu sell di borom yitte ju kawe. lépp lu mu nasaral sëñ Touba ko àggale nuyoo boobu nag nuyoo yu baaxoo déedéet nekk nga fekk say kilifa yoo xam ne ñoo la féete mag ci zaahir ci liggéeyu sëriñ Touba waaye ñoom ñëpp dañ laa nangul cër bii nga xam ne ñoo la ko dégg te sëriñ Abibullahi wax ko léegi na kenn ku nekk cër ba ko sëñ Touba yéene naa ko ko ca danaa ko ca jàppale loolu moo tax ñu fam niroo bépp te ko ci sa loxo insha allahu rabbi kilifa yi danañ ñëw ci ni nga xam ne ni la jataay bi mel te rafet lool sëriñ Abibullahi ànd ak ay magam ànd ak ay rakkam ànd ak ñi nga xam ne sëriñ soto mu Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ko ne ñi nga xam ne seen maam ñoo àndoon ak sëriñ Touba jal jal bi suñu waree jal bi jal bi du wàcc waaye bis buñ ci dugalee ku ci bokkut day wàqi mhm. te boobaa jal bi day wàcc waaye yow nag bi nga wootee ñi seen maam jaloon jal bi ànd ko ka taxoon ni jal bi ñoo la wër alaaji sëriñ Tàkko moom Cheikh Mahamadou Fadal yore liggéey bu rëy ci Touba ci kanam ca bitim réew mi ngi feggoog Cheikh ab Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdou Lahad nga xam ne moo waxoon ne mbooleem daayira yi ay privé lañ daayira publique bi mooy Touba ca kanam mi ngi nii toog waaye mu feggoo moom day doxiinu xorandoom lan yor ci yoon wi fu am bokk mën a rafet daañ ko dem rafetali ko ñoom ñëpp ñi nga ànd ak sëriñ Cheikh ci ndigalul Serigne Moustapha waaye sëriñ Cheikh moom Serigne Aliou ñëpp xam taxawaayam doyloo gi ko Serigne Abdoul Ahad doyloo woon ba jàngale ko doyloo gi ko maamam Serigne Saliou doyloo woon ba dénk ko cër ci dëkk bi loola di ñëw ba ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha nga xam ne da koo jàppe doom def ko xarit mu di liggéeykat mi ngi ne teew àndak ak yow ci liggéey bi àndaale aw ña waaye ku ne xam na ne sëriñ Muntaxa la mu waxoon ne yëf yi yitte rek la ndax yitte lu mënut amut di faral di wax baat boo xam ne nee na sëriñ Tuubaa bañ ko gisee ba bañ ko noppee gis ci boroomam rek la mas di ne te moom mës ta jóg ci loolu waxoon ne baatul ne sama kilifa dama koy bàyyee boppam bàyyee ko sama bopp mhm. noonu lay doxee ba tey jii ñun ñëpp ñu maase bàyyee ko suñu te wóor nañu ne mat bi muy wommat yoon wi ci sëñ Touba rek la leen ndax moom gisut faneen xoolut faneen njabootam gépp ànd na noog sëriñ Thierno ñëw teewal ko fi insha allahu rabbi danañ ñëw ci jataay bi sëriñ Abibou mi ngi ànd ak daayira nooru daare ni kanam bépp sëriñ Abdoulahat moom sëriñ Abibou sëriñ Cheikh Mbacke Omar sëriñ Mourtala moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Daam Atta ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo yëngutu ci Touba ci kanam feggoo ak sëriñ Abdoul Fatah Gueye mi président bi mu feggoo ak sëriñ Fallou Ndiaye mi jiite lépp lu jëm ci wàllu communication te kaddu Touba ci kanam njëkk a bàyyi ko ci aw làmmiñam ñoom ñëpp ñu ngi nii teew ñu bëgg a jël nag kàddu yi taftale ko nii ñuy bëgg a wax di ñaan rek. dañuy wax na li duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li faw dañ koy sóor par ndànk-ndànk te jataay bi yàgg na te waxtu wi jot na te jaayante bi ak liggéey bi kër sëriñ Touba lañuy la ñuy wéy ko fa waaye fii ba màggalu Touba ak ñuy wan ginnaaw màggalu Touba jaayante bi day wéy ndax Serigne Touba moo wax ne mm. wajhal ilaahi mm. maskani mm. Touba abad mislas miha bi jaahi xayri man habat baatu mislas miha nag yow jox nañ murid yëpp ab jéng ci ne li fekk Touba nu róowut ak turandoom wa ca àjjana na ko sëñ Touba bëgg mel ne guri Serigne Cheikh Abdou moom Serigne Cheikh Abdou Latif am na ay jaayante yu jaar ci moom quatre-vingt mille la yooyu mën naa ko ne rek ñu woy ñu woy parole bi kon Touba kanam bu jógee ngir Touba nuroo ak turandoom wane ca àjjana xam ngeen ne ay yoon yu jëm ca dëkk ba rek lay doon waaye na dëkk ba war a mel la ñuy kon fu Touba ca kanam mën a tàmbalee xam leen na ci jumaa ji la jëm mhm. te jumaa ji Serigne Touba moo ñaanoon boroomam ne defal ma sama dëkk bii moo mel ne makkatal mukarrama ak madinatul munawwara kon lu am makka am madina daa war a am Touba. kon xam ngeen ne Touba ca kanam ab liggéey nga koy xaar bu rëy te sëñ Muntaxa nee na yitte ji ma gis ci yéen lépp lu sëñ Touba ñaan ci dëkk bi da ngeen ko def kon dana war a foog moo tax ñu bëgg a foog kàddu gi jox ko sëriñ Abdoul Fatah Guèye mi nga xam ne mooy président daayira nooru daaree ni Touba ca kanam dana ñëw leeral lu jëm ci wàllu daayira bi ak programme bi ñun ñi nga xam ne moom lañ sumb ak na muy tëddee. su noppee danañ jox monsieur le maire Serigne Abdou Lahad xam nga ne liggéey bi ba mu tàmbalee. te Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha. fab dëkk bi doyloo ci rakam. di jëwriñam di Serigne Sidi fab lépp teg ko ci loxoom daa wëlbati ko waat teg ko ci loxoom Serigne Abdou a Ka ah daa am ñu sant Touré ak Cissé ñu ne ci biir ga yëf bu leen làmb seeni i pos waaye bàyyi leen ko xel bu ngeen hmm. làmbee ñu xam fa yëf ya ne hmm. bàyyi leen ko xel bu baax am na ñu ne ci biir ñoo xam ne Touba ca kanam andiwu leen moo tax kàddu gi danañ ko jox sëriñ Abdou Lahad Ka hmm. liggéey bi bañ ko tàmbalee ci moom la njëkk a dem dem ci préfet ak ñu ko seqal mu ànd ak ñun mobiliser waa këram ñëpp génne alalam am nag Touba ca kanam ci assainissement bu Touba bi kon moom la ñuy jox kàddu gi su noppee danañ jox sëriñ Abdoulahi moom sëriñ daan Ibrahim kero jaayante ba ginnaaw bu ndax seeram munta ñàkk bu fekkee dëgg la ballandoo yi benn membre képp la ci Touba ci kanam kero bañ wootee jaayante bi sañ sëñ Abibu wax ma ko moo njëkk a génne deux tonnes yi ciment balla mbóoj balla deel jaayante ba nga daanoo bu fi na gaa daanu nee naa ko nag ci yow laay listixaare sa jaayante gii bu ñu jigut bu ëllëgee yow doo jaayante bu noppee Serigne Cheikh Abdoulahi lañu koy jox moom mi nga xam ne mooy coordonnateur wu projet bii ñu yore. Mhm. ba noppi nag jiite section bi nga xam ne ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu environnement. Mhm. ci Touba ci kanam. Mhm. su noppee ñu jox Serigne Gancaam. xam ngeen ne Touba ci kanam dafa am kuréel boo xam ne ingénieurs yi. ñi nga xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci. wàllu assainissement. wàllu tabax wàllu lu mu mën a doon tam jàngi ko. ba am di jaasere jaayanteeg sëñ Touba jox ko seen di kooku Serigne Ngagne Thiam moo leen jiite ba noppi nag jiite liggéey bii nga xam ne mooy wàllu assainissement danañ ko jox kaddu gi mu leeral liggéey bi nga xam ne moom lañ sumba ak fam jëm su noppee danañ jox Serigne Amsatou Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad mu wax ci turu bokk yëpp waaye di kenn ci membre yi Touba ca kanam su noppee ñu jox kaddu gi Serigne Habibullah mi nga xam ne moo woote woon su noppee Cheikh Mahmoudou Bassir mi sëñ Mountakha yore kàddu yoon wi dana tëj jataay bi ñaanal ñu ñu dem kër sëñ Touba ga nag àggalee fa liggéey ba te xam ne sëñ Mountakha dafa wax barki démb ne sëñ Abibu bu leen jënd ndox bu leen jënd lu ngeen lekk lépp jaayante naa ko te teg naa ko ci loxol soxna Bali dana ko togg yëddeen ko ci kër sëñ Touba kon ñu maase déglu sëñ lu Fatah bi dafa rax wëluñ Touba ña nga tourné baax waa baax na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 alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammadin amin wa ala wa sahbihi wa xayri xalilihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin barke borom Tuuba asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuyoo bi dañ ciy jiital sëriñ Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool kattanal ko dëgëral ko wéral ko ba lépp li nga xam ne yeneen na ko ci liggéeyu sëriñ bi mu defee ko na mu ko bëggee ci barke borom Touba ngir gàttal nuyoo bi dañuy jëlaat lépp teg ko ci loxob sëriñ Abibullahi Mbacke moom dana xam nu mu koy séddalee kenn ku nekk la yàlla ca moom mu jot li ko ci bu baax a baax mbooleem ñi fi teew waaye bu ñu waxee ñi fi teew dañ ci jiital képp koo xam ne bokk nga ci liggéey bi nga xam ne moo ñu fi dajale di Touba ci kanam mooy ñëpp tàmbalee ko ci ñi nga xam ne liggéey bi bi ñu ko wootee te ñu toll ci ñeenteelu at bi ñoo ci njëkk wuy si ñi ci njëkk a wuy si tàbbi ci di ci góor góorlu di ci dox ba tax ba tey tax mu agsi fii ñooñu fu ñu mën a nekk ci biir réew rawatina waa bitim réew rawatina waa bitim réew ndax ku xam Touba kanam ak bitim réew da xam ne war nañ leen a beral am nuyoo ak ak cant kon noonu leen di nuyu ñoom ñëpp di leen sant di leen jaajëfal di santaat yàlla bu baax a baax dellu santaat Serigne Touba ci liggéey bi fi mu toll fi mu ne nii ci tolluwaay bii nga xam ne ci la ñu toll tolluwaayu tàmbalib liggéeyub defar mbeddi euh, dëkk bi liggéeyub defar yooni dëkk bi ginnaaw bi nga xamee ne amati nañ ci ndigal ci Serigne Mountakha ndax Touba kanam mooy kuréel goo xam ne. li ñuy liggéey lépp Serigne Mountakha jox na ko ci ndigal laataa ma koy tàmbali waaye teewut fu ñu toll rek Serigne Abibou bu àndaat ak mbooloo mi delluwaat ci moom yeesluwaat ndigal ndigal lu mujj lii bi ñu ko yeesluwaatee ba yëkkati liggéey bi woote ko ñun ñëpp maase na gis ni mu demee kawe na jot bi ñu may wax ne dañ may jox kàddu léegi kaddu dalal ak ubbi diis na ci man du ma la ñàkk a diis ndax fi liggéey bi toll la du ma la ñàkk a diis ndax nun fi nu toll ak liggéey bi kon lépp dañ koy jël cant gi delloowaat ko delloowaat ko sëriñ bi sëriñ bi di wax rek ne Touba ca kanam ni nii biñ ko wootee dañ ne bëgg nañoo am ñaari millions ngi murit weeru dee kenn ku nekk ci ñoom joxe ñaari téeméer ñuy man di am ñaari milliards par at mais par weer man di am ñaar fukki milliards ak ñeent par at loolu fi ñu ko tàmbalee léegi wax naa ko léegi ñoo ci ñeenteelu at bi fiñ ci toll boo ko doon xayma mooy téeméer bu ñu wut bu nekk ñoo ngi toll ci diggante juróom-ñaar ak juróom-benn genn wàll 6 virgule 5 pour cent jàpp 7 pour cent foofu lañ toll ci li ñuy wut. mu mel na nag li xew fi mu ne nii ab soññee la li xew tamit mën naa wane ak dalalum xel ci ne lépp loo xam ne dëkk bi soxla na ko taalibe Serigne Touba yi bu ñu takkatoo man nañ ko def ci anam gu yomb. Mm-hmm. ndax lu tax loolu mooy. Euh, bu ñu xoolee adduna bi ni ko suñu borom séddalee japonais yi suñ borom da leen jox technologie arabe yi mu jox leen pétrole européens yi mu jox leen organisation ak tegum pexe ba mën a dund ci kaw nit ñi américains yi mu jox leen ak bennoo ñu créé état fédéral boo ñëwee ci Sénégal da ngay laaj lañ lañ lañu suñu borom defal suñ borom dañoo jox Serigne Touba kon li nga xam ne lépp yàlla séddale na ko ci adduna bi da ko dajale jox ko Serigne Touba li tax loolu mooy bu bu dee pétrole bu dee organisation bu dee ak bennoo mooy li Serigne Touba doon jàngale mu tënk ci ñetti baat baat bi ci njëkk mooy yëg-yëg ba ca topp mooy pas-pas bu ñeenteel bi mooy yitte te mooy bu ñetteel bi mooy yitte ñetti baat yooyu mooy baat yi nga xam ne moo tënk yoon wi te mooy yi Touba ca kanam di doxee yëg-yëg boobu ci la ci la ñu wootee liggéey bi ñu ko wootee ku nekk ci ñun da koo am yëg-yëg wuy si ko biñ ko yëgee wuy si ko pas-pas moo la ciy bàyyi waaye yitte nag mooy tax nga sax ci loolu moo tax ñu ne jaayante bi ñoo ngi gërëm ñëpp ñi ci joxe waaye li ëpp solo mooy mu fexe ba nga xam ne kenn ku nekk ci mboolem taalibe yi nga jël engagement da nga amuk dogu ci ne da nga sasoo nangam ca la nga mën weeru dee nga matale mhm. bu ko defee loolu dana tax bu ko defee loolu dana tax lépp loo xam ne ñoo ngi koy ñeewe ab dëkk fu mu mën nekk ci àdduna bi moo xam borom pétrole la wala borom technologie wala borom leneen ñu mën ko indi dëkk Serigne Touba bi mu ne fi Serigne Touba amul morom ji niy wax dana jóge ci ay wax ci lu leer ci àdduna bépp jàll ci ay jos ndax naka jekk mi ngi ci ay jëf waaye daa jot nag ñu gën ko yëkkati ba Serigne Touba amul morom jooju fës leer naññ ci ay jos rawatina Touba ci kanam gi nga xam ne ñëpp bokk nañ ko kon ñuy wax ne liggéey bi biñ ko wootee dañoo seet ne mbedd yi nawet bi màggal gi mi ci biir nawet màggal gi mooy ndaje mi ëpp solo ci Afrique de l'Ouest wala ci àdduna bi sax bu la neexee gannaaw Arabie Saoudite Makka te màggal gi bu ñëwee xat-xat lay doon ak jafe-jafe daaw ñu tàmbali ko def ci liggéey yu ama am solo biñ ko defee ren jii nag ñu ne nañ ci teel a tàmbalee jublu ànd ak borom xam-xam yi ñu wàcc dem ci dëkk bi xool saytu jàngat daal di xayma ne ci xayma bu ñu amee 350 millions xayma jëm koon natte ci tolluwaay bi ñu amoon waaye nag mu mel ne dañ cee sóoraale woon ne danañ am jaayante ñu ne kon nañ ca tàmbalee. bi ñu wootee jaayante bi ci ndigalul sëriñ bi gis nañ ne liñ ci doon wut faw xanaa romb na loolu nag day joxe tegtal ci ne liggéey buñ tàmbali la waaye du yamati ci nañ ko xalaatee woon ndax bu yokkoo dañuy yokk ci biir loolu nag kon ci lañuy ñuy wooyee bépp borom xam-xam bépp borom xam-xam borom xam-xam yi dañuy faral di wax ne liggéey yu mel nii ku koy tàmbali da ngaa war a def ay études euh, préliminaire jaarale ko fépp balaa ngay tàmbali waaye liggéey liggéey Touba kanam bii nga xam ne ñëpp nangu nañ organisation organisation bi ci nekk ñëpp nangu nañ transparence bi ci nekk biñ koy tàmbali amutoon étude te bu fekkonte ne dañ ko waroon a étudier def ko ci ay document teg ko doo a tàmbali kon nëgë ni tàmbalee guñu kon ab liggéey ay coow murit liggéeyu sëriñ bi da nga naan bërëb départ ànd ak ña ngay àndal xam-xam ba dab ko ñu ànd di nos di liggéey di dem ñu ngi ciy woo borom xam-xam yëpp ñu ñëw ànd ci liggéey bi jàpp ci ngir lu ñu bëgg ñu mën koo am xam naa lu jël ci leeralub liggéey bi sëñ Abdoulahi Mbacke moom sëñ Daam Atta mi nga xam ne moom moo mooy coordonné projet bi dina ci dina ci dina gën a ñëw indi ci indi ci ay leeral waaye ñu bàyyi xel ci ne daal liggéey bi tey lay tàmbali jëm ba abadan fan yii nag bi ñu tàmbalee jaayante bi di defar ay affiche di ko publier am na ñenn nag ñu jàpp ne am na ñeneen ñu jàpp ne loolu waruñ koo des ah kay lu tax ñu war koo des mooy joxe ñaar la joxe mën naa nëbb kiy joxe mën naa feeñal la muy joxe waaye la ci am solo mooy ab xolam jubluwaayu xolom lan moo ca ne loola mooy la am solo la ca toppat ci Touba ca kanam mooy Touba ca kanam day soññee ba Touba ca kanam tàmbalee ba tey képp ku mas a joxe lu mag si woon nañ li ci topp mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon daan joxe ñaari téeméer mooy ñiy joxe tey ji di jaayante waaye mooy ñoo jiitu woon am nañ tawféex yu baree bare bi ci njëkk tawféex yi liggéey yu am solo yëpp ñaare bi ñu ko woowee bi ñu ko wootee ñu ñu jàpp ne ñoo xaw a gën a néew doole ci wàllu am am ñoo cee jiitu te loolu feeñ na beneen bi ci topp tamit ñoom euh, mooy li wax ne ulaayika yusaarixuuna fil xayraati wa hum laha saabixuun mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo jiitu ñoo njëkkante yëg wa te ñoom ñoo nga jiitu kon ñi joxe ñaar ñoom ñoo dalal tey ñu ñëw di jaayante ñoo leen dalal kon ki daan joxe ñaar téeméer bu mu jàpp ni mukk dañ koo ginnaawal ci lii ndax kat lu mën a xew jaayante yi am na solo mu ne suta li ñu jaayante ñëpp ak Pastef bañ ko jaare waaye li ëpp solo nag moo ñu saxal pas pasu weer wu dee danaa joxe nangam loolu mooy tax ñu mën koo nos mooy tax ñu mën koo organiser ba nga xam ne lépp lu ñu yéene ci dëkk bi dañ ko mën a liggéeyal sëriñ di jeexale nag kàddu yu cant jëmee ko ci mboolem waa Touba ca kanam boole ko bu ma ne waa Touba kanam gàll na ci ñëpp teg ko ci loxob Serigne Abibulahi Mbacke nga xam ne mooy jëwriñ bi liggéey sant bu baax a baax alaaji Serigne Tàkku Mbacke sant Serigne Abdoulahi Mbacke bu ah, bu baax di leen gërëm ndax kat ñoom ñooy kaaraange liggéey Touba ca àgg tey ba nga xam ne bi ñu doog a tàmbali njabootu Serigne Touba gi ñi ci ëpp ci ñoom yëkkati woon nañ ci kàddu soññeeku loolu bu ko Touba ca kanam mënee am Serigne Abibou mi nekk ca bopp ba ànd ko ñi ma ko àndal moo nu ko may noo koy sant bu baax Mbacke di ko jaajëfal di ko gërëm waaye di ko jéggalu ci turu mbooloo mi yëpp di yi ndax nun ay donga bu ñu na bu ñu mënee ànd ak ñoom ñu wàccee seeni i daraja ba tolloog ñun ñuy wax diñu jox ñuy wax di leen delloo ci liggéey bu nu bokk dañ moo bëgg a dimbali waaye loolu waruñ ko woon a ndax du ñu suñuy nawle ci gën anam kon ñoom bi leen di bu nekk di leen dogal ngaan di leen ñaanal gu yaram gudd fan yëpp di ñaanal ñëpp ndam di wax ne ñoo ngi wàccee foofu kàddu yi jot li kàddu bi jël liste bi liste bi bëri bëri heure dafa jot si bi cinq minutes lañ ko joxoon lañ koy lañ koy bàyyi mu jël ci njabootu sëñ Touba gi ndax xam naa liste bi ñu ma jox loolu lañ ko jublu wasalaamaaleykum wa rahmatullah Touba ca kanam bu ñu waxee ne sant nañ sëñ Abibou sant nañ soxna Bintou Bass kuy góor bàyyi bu jigéen sant nañ la tudd gi amul solo dégg leen li sëñ Abdou Fatah ubbee yëg-yëg la ak pas-pas ak yitte sëñ Muntaxa ñu ko jàngal yëg-yëg bi moo lay andi pas-pas bee la ci bàyyi yitte jey tax ñu am liñ bëgg nañ dund loolu moo gën a wóor tudd gi sëñ Tuubaa ngi ñuy gis kon dañuy yëkkati kàddu bi jox commissaire la maire Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne sëriñ Sidi la sëñ Muntaxa dénk dëkk moom it mu xamal dëkk bi dégg ko ko waaye liggéey bii ñu liggéey di am liggéeyam ñu ànd moom ci assainissement bi kon seen nañ ci imam yow daal bi ñoom gasuloo ci may may si Abdoulaye wuyu na nga ñëw tuuti waaw na nga ñëw tuuti baax na baax na ñoo yëkkati central bi tuuti ñu ma central bi waaw boobu waaw ba tas bi dox. wa barakaatu. gannaaw bu ñu sante yàlla. julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal Serigne Mountakha Bachiru Mbacke mu yàgg fi te di ñaanal sama Serigne Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacke mu yàgg fi te wér. di nuyu njabootu Sëñ fi teew yëpp. su ci njabootu sëñ Tuubaa gi dama koy yëkkati jox ko sama kilifa gii fi toog muy sama sëriñ sëriñ Amsatu Mbàkke bu sëriñ Abdul Ahad mu jottali ko bokkam yi fi teew muy sëriñ Abibu Mbàkke bu sëriñ Fallu ak sëriñ Tàkk Mbàkke bu sëriñ Fallu ak sëriñ Basiiru Mbàkke bu sëriñ Abdou Xaadir ak sëriñ Cheikh Mbàkke bu sëriñ Mahamadan sëriñ Fallu Mbàkke bu sëriñ Baara Xoreja sëriñ Abdoul Ahad Mbacke bu sëriñ Abibou ak sëriñ Sidi Mbacke bu sëriñ Cheikhouna ak sëriñ Abdoulahi bu sëriñ Ndam Atta yi nga xam ne jàkkaarloo na ak ñoom ñu gis gis leen di leen joxe siyaare di leen ndokkeel di leen jox cër bi leen yàlla jox. gannaaw bu loolu wéyee ma nuyu sama bokki taalibe yi nga xam ne ñoom laa fi teewat muy góor ak jigéen mag ak ndaw. teñ bokk pas-pas comme ni ko sëriñ bi waxee ci sëriñ Touba maa ngi leen di nuyu di leen balu ak di leen baal ak di leen ndokkeel ci bis bi ñu génn di leen ñaanal yàlla na sëñ Tuubaa nangu seen liggéey ci daje bii ñu daje ci liggéey bu rëy bii nga xam ne Touba ca kanam programme bi teg na ko mu toll nii te mel nii ci ngir sëriñ Touba rek di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di leen xamal ne maa ngi fii taxaw ñu jiital ma ci conseil municipal bi ci ndigalal jawri ni Serigne Mountakha muy Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne moo tax ma taxaw fii di wax ñu mu boole ma ak l'ensemble de conseils municipal bi ak bureau municipal bi nga xam ne moo composé maire Touba loolu ñu yàlla nattoo ma mu yëkkati ma teg ma ci bopp bi ma ànd ak ñoom di seen ndaw lii nga xam ne maa leen di doxal ak waxal di leen xamal ne maa ngi ànd ak waa bureau municipal bi ak adjoint yi ak conseil yi ngir ñu teew fii tey ci bis bi di la xamal ne rek sëriñ bi mbiram sëriñ Touba ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa bi ñu juddoo ci ak taalibe donn ko taalibe ci suñuy maam suñu wàjjur ba fii ñu taxaw te yàlla xeere ñu ci lu dul am yëg-yëg ci sëñ Tuubaa di ko liggéeyal di sant bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp Touba ci kanam ci seen xalaat bu rafet waaye ci seen pësteef waaye ci seen yëg-yëg ndax ni ko sëriñ Abdou Fatah le waxe léegi nit yëg-yëg moo koy conditionné mu jëm ci acte bu mu def acte bu mën a doon kon nag su fekkee ne suñ borom tabaraka wa taala xiir nañu ci Serigne Touba ñu am yëg-yëg ci Serigne Touba ba suñu addina ak suñu àllaaxira suñu jaayante yëpp ñu yëkkati ko mu jox ñu yëg-yëgu nañ yëg Serigne Touba nañ daw jëm ci Serigne Touba li sëñ Abdou Lahad waxoon rek ba ma xamee ne xoolee lépp lu ma am ci terangay adduna lépp lu ma am ci maqaama lépp lu ma toll lépp sëñ Touba ma ko may ma seet seet lu ma ko mën a faye aw ma ko. damaa yëkkati sama lépp jox ko sëñ Tuubaa ba mu jeex te mu mel ni murid yi roy nañ ko ci loolu ba ñëpp nee nañ dar na Serigne Touba ku xool jataay bii dégg ni mu demee gis action bi ni mu demee gis préparation bi nga war a xam ne murid yi moom am nañ yëg-yëg te sëñ Touba te seen lépp sëñ Touba ba jeex. gannaaw bu loolu wéyee nag ci wàll gi nga xam ne moom la ma yàlla natoo ma fare fi muy ci taalibeb Serigne Touba ñu yëkkati ma teg ma ci bopp commune bi ma. dénk ma liggéey bi ma ànd ko ak taalibay sëñ Tuubaa yi li ciy sama warugar te nga xam bi ñu xalaatee xalaat bii ñu wootee mbooleem ñoo xam ne xam nañ ne dëkk bi am nañ jafe-jafe ñi ngi dund ci jafe-jafe ci assainissement te ñëpp ñi ngi ciy def li nga man état Sénégal mi ngi ci di def li mën lépp commune bi mi ngi ci di def li man lépp association yi ci koñ yi ñu ngi ci li man di def lépp waaye loolu assainissement dafa nekk mbir mu diis moo xam ne munul xëy sotti bi ñu dajee waxtaan ma woo ak autorité yi muy gouverneur préfet sous préfet woo association yi fi nekk yëpp woo service technique yi fi nekk yëpp woo waa Touba ca kanam ak association yi nekk ci gox yi ak goxaat yi ak euh, waa wilaya ñëpp laa woowoon bàyyiwuma woon benn secteur ne leen dañoo ba damaa bëgg ñu def ref journée de réflexion boo xam ne dañuy xool jafe-jafe yi nit ñiy dund ci dëkkam Sëñ Tuubaa bi nan la ñuy def ba def ci liñ man ne do saafara moom yombul waaye nit sañ naa am yéene am pas-pas tey jéem ba sun borom dogal ko mm-hmm. loolu moo tax bi ma leen bi ñu toogee waxtaan ak autorités yi ak waa membre de état yëpp ak service technique yi waa Touba ca kanam ñoom ñu ñëw ci ak acte bu am solo boo xam ne ni ko sëñ Abdou Fatah waxee mbooloo mu daje te am pas-pas te am yéene tey dox lu nekk fu nekk mën nañ faa àgg ndax li mu wax nii ñu ko tàmbalee dañ ko tàmbalee yow nëga mu jëm ba dan ndax feek addinaa ngi dox yoonu murid di dox Touba di dox liggéeyal sëñ Touba di wéy hmm. kon noonu ma ñu firndeel ko ñu daje waxtaan ci ñu tënk li ñuy tënk nan lañ ciy jubloo ñoom ñu dem réfléchir ba trouver solution bii nga xam ne ñoom ci seen xereñ ci seen njàmbaar ci seen ak manko ci yëg-yëgu sëñ Touba nga xam ne li ni ñu ko tuddee Touba ca kanam taalibe seen Touba yëpp a ngi ci ñu laase ko murid yi répondre ci nii taalibe seen Touba yi répondre ci nii li ñu ci tañ ànd koog ñun la ma leen waxoon ci tàmbali ba rek maa ngi yéen Touba ca kanam moom liggéeyal seen Touba la te kenn du ma ci man fu ñu toll ku fasiwuma yéene ku yàlla bind man ma ci liggéeyam seen Touba loolu moom maa ngi ñaan suñu borom nekk ca jàmbaar yi ci kanam loolu nag ñu ànd ko moo tax bi ñu jógee ñëw Abdou Lahad Ka en tant que taalibe Serigne Touba bi ñu waxtaanee ma ne leen danaa ci def sama ñaq danaa ci def sama alal danaa ci def sama xel danaa ci def li ma am lépp ci logistique loolu moo tax bi ñu ñëwee en tant que Abdou Lahad Ka ma jël 5 millions yoo xam ne maa ko def addiyee Serigne Touba du acte bii moo njëkk ci moom dama fas yéene acte bu lu ñu yëkkati rek Abdou Lahad ci biir lu ñu yëkkati fu ñu toll ma toll faa ñoom feeg maa ngi koy man loolu ma ma ma yëkkati loolu def ko yëkkati sama logistique du entreprise boole leen ak moom ne leen fu ngeen toll ñu toll fa doora nag ñëw ci li nga xam ne moom laa yor ñëpp bokk ko muy commune Touba bi. commune bi it ñëwee li nga xam ne moom lañ yaakaar ne bi ñu toogee wax programme yi muy logistique bi nga xam ne fonctionnement am ci carburant. Mhm. yaakaar naa ne lu mu bari bari mënul ëpp mil litres. ma yëkkati 5000 litres jox leen. waxtaan ak sama bureau municipal ak conseil yi yëkkati 30 million de francs CFA do def ko ci participer ko ci waaye 80 personnes yi nga xam ne ñooy personnel service assainissement ma jël 30 personnes yi mettre ko à disposition de Touba ca kanam ngir ñu mën a ànd ak liggéey bi à partir de tey ba ma ñuy wax liggéey bi jeex na ñu nekk ci seen disposition ak oto yi commune bi nga xam ne éder couleur la ñu ngi fi te fépp fu ñu war a manque wala fu ñu war a liggéey dañoo war a dindi ndox ma mu ànd ak ñoom dindi leen ndox moomu ba facilité ñiy liggéey ñu mën a liggéey ak leneen loo xam ne nee na këtt ne jonn te commune bi man ko teg yi ak droit ak may ma ko ma def ko ma diisoo ci ak ñi ma ci mën a diisoo topp ànd ko ñoom bam jeex gan loolu daal laa la ñu laa ne woon danaa ko leeral te di leen xamal ne Abdou Lahad Ka ci cinq premiere membres membre de Touba ca kanam yi la fas yéenaa bokk te du ci des gannaaw ndax sama maam musul des gannaaw ci yoon yi mm-hmm. sama baay musul ci des sama sëriñ sama idol sëriñ Abdoulahat Mbacke kenn du tudd yoon mu di te tuddoo ko junni yoon donc loolu laa fas yéene ànd ak yéen nekk ci yéen ànd ak yéen fas yéene di liggéey ba am ngërëmal sëñ Tuubaa ndax moom rek moo mën a njëriñ nit mm-hmm. mooy njëriñal taalibe yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ñëpp ak di leen baal ak salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu en tant que maire waaye jërëjëf sëriñ Abdoulahat Ka en tant que président Touba matériaux ah jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad en tant que talibé Serigne Sidi ñett yooyu lañ la wooye woon ñett yëpp wuy si nga ci ñuy fàttali ne ci jataay bi Serigne Cheikh Abdoulahi xalifab Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Abdoulahi yal na yàlla dooli yërmaaneem ak tawfeexam teew na fi ci ndigalul waajuram Serigne Modou Habib mi nga xam ne ba jaayante jotee kenn njëkk koo jaayante ànd ak njabootu sëñ Abdoulahi gépp mi ngi toog ci jataay bi Abdoul Ahad Seck Sadaga député Serigne Touba moom it ñëw na ci jataay bi ànd ci ak jëfam ju rëy ak gis nañ ko ñoo ngi koy sant di fàttali ne Serigne Abdoulaye Xat Mbàkke moom Serigne Jiili moom Serigne Fallou ku ne xam ne pàcc bu la ci jataay bi moom it mi ngi ci kon dañuy bàyyee kaddu gi Serigne Cheikh Abdoulahi moom Serigne Daam Ibrahim moom it mu yëkkati ay kaddu moom it xam ne moom it dañ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 maa ngi yëkkati sama kàddu ci turu comité de coordination bi nga xam ne moo àndandoo fas yéene taxaw ci lu mën a defar yooni dëkk bi waaye ci turu commission environnement bu Touba ca kanam waaye ci turu mbooleem membre yi Touba ca kanam te buñ ko waxee loolu sëñ Abibu nekk ca bopp ba sëñ Abdoulaye sëñ Abdou Lahad mu sëñ Abibu ak sëñ Abdou Fatah Guèye muy kàddu nuyoo ak cant ak ngërëm ak ay leeral yu jëm ci liggéey bii nga xam ne yàlla dogal na ne di ci aju ci ab nos ak taxawu kuréel gi ko yor man lañ ca jiital kon nuyoo yooyu ak siyaare ñi ngi koy teg ci loxol sëñ Abibu Mbàkke mu sëñ Fàllilu mii di jëwriñ mu tegal nu ko ci loxol mbokkam yii mu fi nekkal tañ man cee ràññee Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye ak mbooleem autorité yi fi teew tañ man cee ràññee monsieur le maire mi nga xam ne ni ñu ko waxee ay casquette am bari na ndax maire la waaye taalibe waaye mu jëm nag ci mbooleem mbokki taalibe yi ak jullit yi yëpp ñu ne ci réew mi te liggéey bi saf leen yitteel leen liñ ciy indil ci leeral mooy commission environnement Touba ca kanam atum ren jii lañ ko sos biñ gisee ne liggéey bi day yàqaliku te lépp dëkk bi moo tax a jóg Touba ca kanam gis nañ ne environnement lu ñuy def am na ca solo ñu sos commission environnement dénk ma ko ma ànd ko ñi ma ko àndal. ci loolu ci lañ jóge ci koor gi commencé def ay études xool ba xam lan lañ war a def ci lu jëm ci wàllu assainissement wu dëkk bi ndax commission environnement li mu lëng bari na am nañu ay projet ci wàllu mbalit mi am nañ ko ci wàllu. Euh, naataange dëkk bi reboisement waaye am nañ ko ci assainissement ak yeneen i volet waaye li ci gënoon a jàmp ngir nawet bi ak màggal gi moo ci moom lañ ci jiital kon mu jëm ci assainissement wu dëkk bi ban tànk lañ ciy taxawee ci lañ jógee nag def ay étude di xool fan lañ ko war a mën a jaar ànd ko kook suñuy ingénieur ak suñu boroomi xam-xam associé ci yeneen i entreprise pour ñu indi indil ñu ay proposition ak ay solution ci li ñu bëgg a def lan la ci loolu bi ñu doxee ba def li ñu war a def ba pare ba jot rapport yi ba décider lan la ñuy jël pour defal ko def ko te loola mooy offre bi nga xam ne Touba ca kanam def na ko defal na ko boppam ndax booba amul bénéfice bu dee entreprise yi ku ci ne da ngay defar sa offre def sa main d'œuvre def sa matériel wut ca loo cay am Touba ca kanam comme am nay ingénieur tam mën naa taxawul boppam mu choisir boobu bi mu ko choisiree mu ne coowu dem Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne fi nekkal Serigne Touba te li mooy lépp liggéey bi ñu ngi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm di wax ne moom moo gunge Touba ca kanam moo ko ñemeloo moo ko ñaanal ba fu mu yegg si tey jii moo ko fa yeggale te booba doonagul lii mu doon bañ ca demee fekk na mu njoxoon ñi ndigalul lépp lu ngeen xalaat ci lu baax ànd naa ci ak yéen xanaa ngeen yëgal ma waaye lu ngeen xalaat rek jox naa leen ndigalul na ngeen ko def bañ demee leeral ko liñ bëgg a def mu rafet lu ko lool ñaanal ñu ci encouragé ñu bu baax comme ni mu ko baaxoo di defee ne ñu nag léegi kon doxal leen yebal ñu ci sëñ basum Seydu Xaadir bi nga xam ne moo koy taxawul boo leen liggéey yu ci yoon wi ak dëkk bi bañ demee sëñ Bass waxtaan ak moom moom it mu rafet rafetlu ko sant ci gërëm ci indi ci ay xalaatam bi ñu laajee ñu jox ko programme bi ñu teg techniquement ak lépp lu ci aju moom itam mu dolli ci ay xalaatam ci ne ngir gën a baaxal nañ ci associé ñi nga xam ne ñoo yoroon loolu ci dëkk bi muy lu jëm ci wàllu tali yi ak lu jëm ci wàllu réseau assainissement bi nga xam ne nii moo fi newoon ci la organiser waat benn rencontre woo waa Ageroute ak Enancine woo euh, waa waa waa waa waa ONAS ñu yebal seen i responsable ñu ñëw toog ci kanamam ñu waxtaan ñu won leen liñ bëgg a def ñu apprécier ko wane ni nii baax na indi ci seen i xalaat waaye yemuñ ci ñu jëlee foofu kon benn collaboration boo xam dañ koo war a wéyal ngir euh, techniquement ak li ñu proposé ñoom ñu indi ci seen i xalaat ñu àndaat de organiser ñu jógee fa kon dem ci monsieur le maire mi nga xam ne moom la sëñ bi dénk dëkk bi bañ demee waxtaan ak moom fekk amoon nañ ay xalaat ba doon ci wéy ba woowoon ci Touba ji kanam bañ commencé woon di xalaat euh, moom itam bañ demee wax ak moom mu rafet lañ xalaat ñu gën a dëgëral suñu collaboration mu jël ay engagement engagement yooyu bokkoon na ca cinq mille litres yu mu tëdd ci ne commune bi dana ko joxe ak itam moom ci boppam en tant que maire matériel logistique am bi entreprise am am lépp luñ ci soxla lam ca mën a jàppe dana ko ci jàppe loolu engagé woon na ko lu jiitu tey muy engagé waat engagement yu bees yi mu jël kon moom itam ñu koy sant di ko gërëm ndax bokk na ca collaboration bañ amoon ñun dañuy defar loo xam ni dañuy wéy di fi nekk kenn dootu ko fi jëlee bu bu ko yàlla dogalee loolu lañ bëgg a def. <laughs> loolu tax na euh, ànd naag liggéey bu yaatu ndax nawet baa ngi ñëw day taw fi ñuy war a defar mooy fi nga xam ne ndox mi daf fiy taa ak collaboration ak euh, ñi nga xam ne ñoom la ko seqal muy autorités yi ak waa état bi ci euh, direction bi nga xam ne ñooy wàllu inondation yi ñu jël programme ak sapeur pompier ci fépp foo xam ne ni ndox mi daf faa taa su boobaa ñoom danañ ñëw daal li koy vider. mairie dana fa wàcce courant sapeur pompier indi ay pompe ñu jëlee fa ndox ma ngir ñun ñu mën a liggéey loolu bokk na suñu collaboration yemu ci léegi waaye jëlaat na fii ay engagement wax ne commune bi dana ci def 30 millions dana nu jox personnel bi nga xam ne moo ne ci wàllu assainissement bi mu ànd ak ñun kon loolu noo ko déggandoo ñu ngi sant di gërëm di ko rafetlu di wéyal rek li nga xam ne ni kon moom la ñuy moom lañ fas yéenee liggéey di wax ne études yi def nañ ko ba pare dëkk bi rëy na liñ ci war a def bari na ci assainissement dañoo jukki li nga xam ne moo ci gën a jàmp ginnaaw bu ñu wëree ba xool ne lii moo gën a urgence rawatina libéré yoon yi te loolu tàmbule ci fii ci station Shell bi ak fële ci buntu maire yi ba te maire wax ne jërut ñu koy laal ndax pare nañ pour defar ko ak fu mel ni euh, tokkooru sëñ Cheikh ba ak yu ni mel ba mu mat vingt sites yi ñu jàpp ne moo gën a ñor ñu fas ko yéenee tàmbule am na ay tali yoo xam ne yoon wi daf koy nangu yemul ci ay tali waaye am na ay mbedd 30 yu mag yoo xam ne amul tali waaye na muy méttee ëpp na dox euh, bu nawet bi xasee ubbi kenn dootu fa mën a jaar te mbedd yu am solo la ci dëkk bi nekk ni ki 30 ba li nga xam ne moo nekk ci kër Sëñ Ñaan Jóob lañ ciy joxe comme témoin ak 30 se xaw ga amul tali waaye ndox mi daf koy nangu am na it ay tali yoo xam ne dafay yàqu yàquin wu doy waar woo xam ne mën naa indi ay loraange ni ki yoonu Daaru Rahmaan ci station bi foofu amul problème ndox waaye tali ba oto mën na faa daanu bis bu set te ay jiyaa nga fay am ndax nam daggee moo yéeme loolu bokk na ci sunu liggéey euh, na ci itam yu ni mel Euh, lu mel ni euh, lu mel ni euh, noonu ñu ko waxee ay tali yoo xam ne dafa dagg ak ay giri avaloir yoo xam ne dañ koo defoon ci kaw tali bi te mu yàqu oto man faa surux ay nit man faa surux mu mën a indi ay loraange loolu yëpp biñ ko xoolee jàppoon nañ koo boole ci sunub liggéey ni ki loolu ñu ngi koy wéyal waaye collaboration bi ñu am ak waa AGEROUTE nee nañ ñoom lu aju ci tali nee nañ ñu bàyyee leen ko danañ ko doxal nee nañ leen nag bàyyi gi mooy commencé feneen kon leen déglu suñu ñu waxanteeg sëñ bi te loolu la ñu fas yéenee Euh, lu jëm ci loolu it lu jëm ci loolu itam giri avaloir yi nga xam ne nit mën na cee surux ni ki ñaari étage eh, misaal la ci mhm. tali bii jaar ci ginnaaw ko sëñ Mbàkke Madina misaal la ci gaar bu ndaw fu ci ne ay tali la woon yu ñu defar def ci fu ndox mi jaar tam yàqu loolu ci liggéey bi la Ageroute jël na ay engagement ci ne dina ko defar waaye ci anam gii buñ ko dégloo ba yegg ca buñ ko defarut incha allahu dañ ko defar ndax loolu la ñu waxante ak sëñ bi kon daal liggéey bi ci tënk loolu la ñuy ah, fas nañ ko waxee environnement yaatu na pompe dëkk bi pare nañ ci incha allah waroon naa tàmbali semaine bii jiitu tabaski gi waaye lii moo xaw a jàmp waaye incha allah semaine bii di ñëw danañ ko danañ ko engagé. kon li war a def bari na waaye li concerné jëmmi lii ñuy def di ko tàmbali tey rek ci la ñuy wax. bu ko defee ci loolu nag la ñuy waxee ne kon ñi ngi sant ñëpp waaye cant gi ñi ngi ciy jiital waa Touba ca kanam. mooy murit yi dégg woote bi ñu engagé fas yéene weer wu dee ñu joxe 1000 francs moo xam par ñaar fukk lañ koy def moo xam par fukki dërëm moo xam lu mën doon ñoo ñu ñoo am mérite bi parce que moo tax Touba ca kanam ñemee dem bay engagé lu jëm ci projet bu toll nii bu dul woon loolu duñ ko xalaat mm-hmm. kon ñooñu la ñuy sant jiital leen ci cant gi su demee bañ yëkkati lu mel nii am ñuy engagé un million mm-hmm. ñuy engagé cent mille ñii engagé deux millions ñii trois ñii cinq millions ñii dix ñii cinquante millions ba am démb ku engagé deux cent quatre-vingts millions ñu nga xam ne ñoo tàmbali liggéey bi te ne ci way ci deng bu ngoon te gën cee ràññeet li ñi ñu teg seen loxo seen nuyoo ak seen i cant ci loxol soxna Bintu Mbàkke sëñ bi bu mi ko jiite ak ñam ko àndal ñëpp ñooñu ñoo am mérite bi kon képp ku wuy rek ci kaw ñooñu nga wuy kon ñu leen sant leen gërëm di leen ñaanal ndimbal ak tawfeex ak mbooleem ku ci participer di wax ne nañ wéyal liggéey bi ci kaw nu mu gën a baaxee liggéey bi soxla na xam-xam soxla na alal soxla na matériel lu ci ne liñ ci soxla doyut ndax lii dañ koy tàmbali waaye buñ amee lañ bëgg dañuy enchaîner du ñu taxaw incha allah ba defar assainissement dëkk bi xam ne Sëñ Tuubaa attan na ko ci la ñuy waxee ne kon képp koo xam ne participation ñaar fukki dërëm nga am ñu ngi koy dàmbalee di la ko sant di la ko gërëm di indi loo xam ne xewoon na ci jamonoy sëriñ bi ci ku ñuy wax euh, ku ñuy wax sëriñ ma si seen ndongo dafa ñëw ci sëriñ bi ak bëggam sëriñ bi tax mu ne ko dama bëgg nga dimbalee ma foo jëm yóbbaale ma ma lay lala sa der bi ndax mu di ko gis ndax ñoom gis sëñ bi fa mu leen doon yegg dara mënu leen faa yegg bi mu ko ñaanee sëriñ bi sëriñ bi xamal ko ne am nga ndigalul des fi wala fu la soob te ne fa te nekk fa ndigal ndax lépp lu ne ci man ak ne fi man bokkul ak ne ci sa bopp daal di cee wax wax yam ci wax sëñ Moussa Ka wax na ko wax ne ku ne ci sa bopp ñu balaak sa bopp ku ne ci man mu yor la yor sa lépp ku ne ci ku ne moom ngir koom maag zahir mu bàyyee la yooya ku ne ci mu yoral la sa lépp adduna ak àlaxir ca loola ba mu waxee loola sëñ Moussa Ndongo sëñ dafa wéy dem kon ca ndigalu sëñ bi fas yéene dem bay yóbbu addiya ba mu engagé loola nekk ca liggéey booba nekk ca fekk sëriñ bi bàyyi ko fi kon daal di dem gànnaar ndax daaru mar naan la engagé loolu sëñ bi nag ko fi dem da dem gànnaar ba mu demee ne fa ab diir sëñ ma si sa ndongo dugg ci àll bi engagé dem di bay ba mu bayee ba mbay ma sotti amul lu dul benn dërëm ca mbay ma mu xam ne yàllaa ko dogal ci at ma bu daal di jël dërëm ba yóbbu gànnaar ngir yóti ko sëñ Tuubaa addee ba mu demee ba muy gis sëriñ bi ba mu koy recevoir mu daje fa ak ndaw loo xam ne Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine moo ko yónni jox ko junni mu indi addiyee ju doon indi ci sëriñ bi mu ñëwee sëriñ bi recevoir andoo leen ñu joxeendoo seeni addiye sëriñ bi wax ne junni Cheikh Ibrahima dërëmub sëñ Massi sa ndong bii lay seerees ndax ñoo bokk yéene kon ñu xam ne yéene ak pas-pas mooy liggéey bi te euh, un mille francs yi ñuy woote bu ci ñëpp woyee lu ñu bëgg danañ ko am kon buñ tollee bi du duñ laajaat lu jëm ci engagement yi li ko Abdou Fatah waxee ci ci 7 pour cent lañ toll ci projet bi nga xam ne ni am nañ li ñu war lépp suñ ko jugaloon ci assainissement bi du doy looloo tax ñu woote jaayante bi kon nañu way ci loolu te ñëpp way nekk ci dañuy continuer incha allahu noonu lañ ko waxee kon bu ko defee ñu xam ne kon la ñuy def jër ta xeeb jër ta nañ ci way deng te te te wéyal ko te xam ne Pastef bi moo ci am solo ngir wax ne sëriñ bi wax na ne lépp lu ko waay yéene dërëm bu ko waay junni yéene moom dana ko dana ko fal ay dana ko ful ay junni dana ko ful ay junni mu dëppoog li alxuraan wax ne euh, képp koo xam ne nii euh, euh, ji nga aw fépp ci yàlla bu jebbee dana doon aw gub woo xam ne nii ay junniy junniy fépp a ca nekk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa kàddu cant yooyu dina ñëw ci sëriñ Abibou muy ministre Abdoul Karim Fafana jëf jim ci jëf ak ministre euh, Khady Dame Diop loolu dañ ko bàyyee ak sëriñ moo ci ñëw di ay cant kon dañuy bàyyee benn minute sëriñ Abdoulaye Mbaye Peex mu am lu mu yót lu mu dugal su ko defee ñu wéyal jataay bi jox ñi nga xam ne ñoo topp ci kàddu bi waaw dafa am ku ñuy wax Ablaye Sow moo yor chambre commerce bu Dakar joxe na léegi deux millions Ablaye Sow di nit ku yàlla baaxal am na taalibe Cheikh Mahamadul Muntaxa Omar Sow bu ñuy wax Omar Sow day jàmbaar Omar ñi ngi lay woo waaye daal am na kilifa gu mag guma ma dégg goo xam ne gii xam naa ni balaa jant soo dees na dégg mbir de mbir mbir dana xew gis nga affaire bi <laughs> la la euh, ministre de l'intérieur Bekkaay Diop ne woon affaire baa ngi fii affaire bi affaire bi Touba ca kanam la affaire bi Touba ca kanam la. Ablaye ku la ko waxal nga jël. ku ma ko waxal ma jël. waaw góor léegi nag sama jàmbaar ji dafa maa woowaat léegi Abdoulaye Ka. nee na ma bi 30 millions yi génnee sama 5 millions démb na leer yëpp wéere naa ko ci compte bi joxe naa 5 millions yi bu yàgg. dem na. jeex na jàmbaari Cheikh Abdoulaye Lahad ji loolu la def kon nag gaa yi sama yaram a ngi xasanaat sarax ñu rek ah waaw xaaral tuuti dama bëggoon benn nañu fekk kër sëñ Tuubaa ah, ah, kon nañu fekk kër sëñ Tuubaa moo tax ma arrêté Ablaye sëñ maam Thierno nee la woon nga def ndànk yëf yi yëf yi dana doy ah. waaye kër sëñ Tuubaa ga lañ koy mottalee booba buñ fa àggee lu la neex laaj Serigne Gancaam ingénieur bi lañ bëgg mu ñëw sëñ Ngagne Thiam tënkal ko ci bu gàtt waaw ndax waxtu wi jot nañu procès bi ak niñ koy liggéeyee sëriñ Ngagne Thiam lañ bëgg mu leer ko bismillah ñoo xam ne rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëfe sëriñ Touba euh, waxtu wi daf dañuy dañuy jël suñuy nuyoo taptal ko ci nuyoo jóor yi nga xamante bi ne ni ñoo fi njëkk a jàll ñu yeggaleen ñu ko di wax ni projet bii nga xamante bi ne ni dañ koo jëm ci wàllu assainissement dafa am noo xamante bi ne ni moom la ko euh, sëñ bi waxee léegi noonu lañ ko tàmbalee ci lañ ci doxee doxin bi nga xam ne moom lañ ci dox mooy bu ñu xoolee ñi xam assainissement yëpp xam nañ ne assainissement soo koy def dafa doon loo xamante bi ne ni doo ko def di ko def ay barab yoo xamante bi ne ni dañoo wuute soo koy def li ci njëkk mooy que ni bu dee ab dëkk bu mel ni Touba da ngay jël ay études yoo xamante bi ne ni day jël dëkk bi yëpp ci ni mu toll ba euh, boole waale ci ni nga xamante bi ne ni noonu lay màggee def loo xamante bi ne ni dañ koy wax benn plan directeur boo defee loolu ba noppi ci li nga xamante ne ni moom nga am ci koom ci ñi nga xamante ne ni ñoo ci war a yëngatu ci ci mbir moomu saa su ne ñu jukkee ci plan boobu def loo xamante ne ni day méngoo ak euh, li nga xam ne moom lañ tëraloon loolu nag bi nga xamante ne ni seet nañ ko Touba ca kanam xëyul xëy rek woote li ñuy wax dafa am fuñ ko teg ndax loolu dafa amoon avant Touba ca kanam ak bi fi Touba ca kanam nekkee dafa amoon lu ñuy wax ay acteurs yoo xamante bi ne ni dañoo nekkoon ci wàllu woowu di ci yëngu fii ci Touba bi mu def bi loolu amee jëwrin yi dañ ñoo jox ay ndigal ngir ki ni ñu weccoo ak ñu nga xamante bi ne ni dañoo nekk ci dëkk bi liggéeyoon ci loo xamante ni dafa jëm ci wàllu assainissement bi ci loolu ci la ñu gisee ñaari biir daal di wax ni dafa am loo xamante bi ne ni dafa jàmp mënta xaar mooy barab yi nga xamante bi ne ni dañ koo jël ñuy wax ci dafa toll ci ñaar fukki barab foofu danañ fa am benn leeral ëpp na ñaar fukk dafa doon loo xamante ne bi ko Touba kanam xoolee saytu ko càmbaraat ko xool ak li nga xamante bi ne ni moom la ñuy wax ci wàllu budget dañu ni nañu jël ñaar fukki yi nga xamante bi ne ni dañ koy def bañ ca noppee am na beneen lim boo xamante bi ne daf ci topp lim boobu dafa doon loo xamante ne dañ koo def mu doon loo xamante ne liste d'attente la am na ci yoo xamante ni sax ñu ngi koy ko ñu ngi koy fi mu toll ñu ngi koy xool di ko càmbar ndax nit ñi li nga xamante bi ne noonu la ñu wuysee ci woote bi mu doon loo xamante ne luy wéy la loolu it saafara yi nga xamante bi ne ni moom lañ ci euh, euh, tënk fii ñu toll nii mooy li ñuy wax ay solution d'urgence durable yoo xamante bi ne ni day doon solution yoo xamante bi ne ni fii ak màggal gi liñ fiy def bu leneen dikkatee ëllëg day doon loo xam ne daf ci toftalu ci loolu ci la xool fi nga xam ne day taa ñu xool ci li ko wër loolu ñuy wax exutoire fa nga xamante bi ne fa la assainissement ba yem ñu xool ko am na ci barab yoo xamante bi ne ni fi ñu toll ak ñi ŋànk assainissement bi waxtaan nañ ceeg ñoom ba ñu d'accord ci ñu jëlee ndox mi foofu yóbbu ko foofu daal di ko ci raccordé mu dem ci réseau bi ndax loolu it li tax ñu waxtaan ceeg ñoom mooy mën ngaa jëlee foofu ndox dugal ko ci réseau bi fekk booba ñoom jumtuwaay yee ñu nga xam ne la ñu waajal attanul li nga xamante ne ni moom lañ cay def kon bu boobee ak loraange lay lay lay jur feneen waaye du jur saafara loolu yàlla sunu borom def na ci tawféex ba nga xamante bi ne nii niñ ci waxtaanee ak ñoom gis nañ ni loola mën na doon loo xamante bi ne ni luy nekk la yeneen beneen bi ci des mooy dafa am mbedd 30 yoo xamante bi ne it ni ko suñ bi waxee day am ndox su amee ndox dañuy wax ni dañuy def lenn def fa li ñuy wax préparation plateforme buñ ko defee ba noppi def dafa ay couches euh, de de base ak ak ak ay loolu suñ ko defee suñ defee loolu yëpp ba waajal ko ba noppi dana tax yoon yooyu ñu mën koo jëfandikoo ndax dama doon ay yoon yoo xamante bi ne nii li ñuy wax ay trafic intense la trafic intense mooy yoon woo xamante bi ne ni comme lu mel ni fii ci Shell bi nga xamante bi ne nii dafa bari loo dañ fiy jaar di dugg ci dëkk bi yooyu la xool ak yeneen mbedd yoo xamante bi ne nii euh, loolu moo ciy am kon yooyu yooyu saafara lañ ci lañ lañ lañ lañ ci doon loo xamante bi ne moom lañ ci moom lañ ci arrêté ci solution d'urgence yi beneen bi nga xamante bi ne ni moo ci topp mooy yenn yoon yi nga xamante bi ne sëñ bi junduñu ko sànq dafa doon ay yoon yoo xamante bi ne dañoo doon ay yoon yu yu yàqu te bu ñu seetloo li ci ëpp dañoo doon ay yoon yoo xamante ne ni bu ndox amee daf fay taax loolu ñenn ñi sax dañ koy romb daal di wax ni tali bi dafa suufee waaye tali bu ñu koy defar fi nga xamante bi ne ni foofu lay toll dafa dafa méngoo ak kër yi fi ñu fi seen i hauteur toll fi seen i altimétrie ndax boo yëkkatee tali lu bare bari mën na indi euh, jàngoro joo xam ne ndox mi day dugg ci biir kër yi looloo tax yenn saa yi muy demee noonu loolu it lañ fa lañ fa prévoir mooy def lu ñuy wax benn reprofilage mooy que ni dindi li nga xamante bi ne ni euh, baaxu fa def fa ay raje yoo xam ne ay rajo yu immersible la jéem a xool ndox mi nu ñu koy def pour yóbbu ko foofu yàlla sunu borom dogal na que yooyu yëpp am nañ ci ay saafara beneen bi nga xamante bi ne ni moo ci topp sëriñ bu wax na ko sànq bi ñu waxtaaneek bi ñu waxtaaneek ñi nga xamante bi ne ni ñoo nànk assainissement mostee liggéey wecconteeg ñoom ay xalaat jël yi nga xamante bi ne ni waajaloon nañ ko pour dëkk bi ak liñ ci jote def dañoo seetlu ni dafa tuubaa dafa ñàkk benn plan directeur boo xamante bi ne ni am na kenn ku ko yore li ñu soxla ci assainissement yëpp mën caa nekk dafa doon loo xam ne dafa tasaaroo bi ñu ci waxtaanee ak ñoom de fi ak Touba ca kanam déggoon nañ ci e, jël jumtuwaay yooyu étude yooyu nga xam def nañ ko liñ ci jot a def ak yi nga xamante bi ne jot ñu ko cee def ñu boole leen dajale leen def ci benn synthèse waxtaan ci amande ko suñu defee loolu ba noppi suñu defee loolu ba noppi suñu defee synthèse bi dañu koy do tey dafa dafa dafa mel ni li ci ëpp ci plan yi nga xam ne def nañ ko ak ci nisër yi nga xam ne am na ci wàllu yi nga xam ne mooy assainissement dafa mel ni fi mu fi mu yegg ci dëkk bi bariwul ak dayowaayu dëkk bi léegi li ñu bëggoon ci loolu mooy suñu ko jotee moom la sëñ bi doon junj sànq dafa am kuréel goo xamante bi ne ni dañ koy ubbi bu ne mu nekk loo xamante ni à lon terme la ñë képp koo xamante bi ne ni sa xam-xam dafa màcc ci wàllu assainissement Touba ca kanam dafa fas yéene dugal la foofa am na ci ñu bari ñu ci jot a am fi mu am na ci ñoo xamante bi nii sax jotoon nañ cee xalaat ba bind ci loola buñ ko defee te it loolu dañ ciy wax ni ñi ne moo xam ñi nekk ci biir réew bi la moo xam fu ñu mën a nekk ci àdduna ndax léegi xarala yi euh, def na ki ni mën nañoo nit mën naa nekk ku ne di liggéey ak ku ne xam-xam yooyu dañ koo soxla pour dajale ko su ñu ko dajalee mën a doon loo xamante bi ne ni dañuy càmbar loolu suñ ko càmbaree ba noppi Touba ca kanam dafa fas yéene yi wéyale étude boobu mu doon boo étude boo xamante bi ne ni day globaliser euh, Touba gi yëpp bu ñu noppee def ci benn plan d'action boo xamante bi ne at mu jot dañ ci am luñ ciy dugg kon loolu liñ ciy wax mooy que ni euh, budget bi nga xam ne déggoon nañ ñu di ko wax mu nekkoon budget bu prévisionnel muy 350 millions yooyu kon ñaar fukki site yooyu moo doon loo xamante bi ne ni ñoom la concerné woon te gis nañu ni ci liste d'attente bi mën kon euh, loolu day continuer wéyale ñu indi ci beneen leeral boo xamante bi ne ni leeral bu euh, leeral bu leeral bu gàtt la rek mooy Touba ca kanam su jógee wax jël benn projet wax ni daf ciy def cent 350 million surtout ci lu mel ni ci assainissement ku koy xayma bu fekkonte bi ne ni lépp da koo fay mën nga koo xayma ci ñaari milliards ndax daf ci bari loo xamante bi ne ni du ko fay daf ci bari loo xamante bi ne daf koy dikk daf koy dikkal dégg ngeen sànq bi ñuy wax matériels yi dégg ngeen sànq bi ñuy wax matériaux yi dégg ngeen sànq fii bi ñuy wax li nga xamante ne mooy xam-xam yi yooyu yëpp booy def lu mel nii dafa doon loo xam ne da nga koy fay te étude dafay jël lu bare bare bare bare bare bare matériel roulant bi lu cher a cher a cher a lay coûter kon loolu lépp bu ko amee looloo koy permettre que ni su waxee benn enveloppe xëñ na boo koy xool bu buñ ko doon def day doon loo xamante bi ne lu bari lu bari lay doon kon ci loolu la ñu doon li nga xamante bi ne nii ci lañ ci toll di waxit ni ñi nga xamante bi ne nii euh, ñoo ngi ci participer projet bi dafa doon loo xamante bi ne ni euh, day day day wéyee day day day wéyee waaw euh, nous sommes réunis aujourd'hui ici à Touba le 8 août 2020 pour le lancement des travaux d'assainissement sur euh, 20 points où il y a une stagnation des eaux pluviales. À cet effet, l'assistance est présidée par le porte-parole du mouridisme Serigne Bassirou Abdou Khadir Mbacké. Ce projet de Touba Ca Kanam qui est fidèle à la doctrine mouride rentre dans un programme d'entraide pour le bien-être de la population de Touba. À cet effet, Touba Kanam, suite à des constatations et euh, un relevé sur le terrain de certains axes dont le trafic est intense a intégré dans son budget de 2020 de pouvoir résoudre ces problèmes de stagnation et de trafic qui, euh, qui sont très importants, qui, qui sont aussi, euh, euh, reliés à l'hygiène des populations. C'est à cet effet qu'il a évalué euh, un budget prévisionnel de millions pour euh, cette année, pour la préparation du Magal de Touba, édition 2020. Ces études ont été faites avec la collaboration de l'État du Sénégal, qui n'a qui, euh, qui n'a aucun effort en passant par ces services qui sont concernés par l'assainissement et la commune de Touba et les bonnes volontés pour enfin arrêter euh, une étude des méthodologies d'exécution euh, d'urgence et durable sur ces points qu'il faut démarrer le projet. Il y, avait, il y a aussi, Touba aussi a un programme de pouvoir euh, de, de s'investir davantage sur l'assainissement de Touba en créant un comité, un comité qui sera composé d'experts dans ce domaine-là pour évaluer l'existence, euh, pour identifier, géolocaliser tout ce qui est réseau d'assainissement à tout Touba. et aussi étudier les projets qui sont en, en perspective et de, de, pouvoir les amender pour enfin élaborer, étudier et élaborer un, peu, un programme, un plan directeur de Touba en tenant compte des, des normes et règles en vigueur. Nous vous saluons et vous de votre attention. jërëjëf sëñ Gadi daa mel ne bi ngay wax sëñ Cheikh Aliou la wóor sa ci xam-xam la ñu te li wax da koo dana tekk di xool xam naa ne moom yëf yi ñor na ko waaye sëriñ Thierno sëriñ Abdoul Ahad Ka nee na ngi lay jégalu bu baax ndax dala daa gee suutoon may ne nuyoo bi mi ngi asiwaat ci yow waaye sëriñ Mouhamadou Bachir naa xam ne war sa ko mën a jaayee su jaaree ci ñaar mbooleem taataa yi wër am na ci taataa yoo xam ne kër yam nekk seen borom jëgale kër yooyu nag buñ fexee ba jot ci man koo def ay bassin ndox ndox ndox mi amul fu mu xaj waaye am na ci kër yoo xam ne seen borom génn nañu par exemple mën a jaay di la jox Touba ca kanam wala ñu jël ko jox Touba ca kanam ñu def ay bassin ndox ma di ko waaj ndax ndox mi neexu dëgg la Touba am na ñu mën a jaayante ay tool tool yaa ngi ci ànd bi wër Touba te Touba lépp dafa war a leer te ku ne xam ne semence bi bari na suñu joxee àll bi Touba ca kanam def ko ay tool kenn taxawal ci dëkk Touba ca kanam dafa war a jëlee Touba ca kanam war ko mën a def ci lu la war a àjjana kon nañ bàyyi kàddu bi ak sëriñ nee na rek. mu mel ni sëñ Mountakha nag moom la sëñ Tuubaa liggéeyoo te moom muy doxee ku dem ma dem ku demul dem loolu nag ku koy doxee boo jee boo gis mbooloo sa gannaaw bi mu jeexoon nag bokk na ci mbooloo yi gis Tuubaa ji kanam moo tax ñuy dox doxee léeg-léeg ndax boo gisee Tuubaa ji kanam ak liggéeyam am solo dafa yëngu ci benn waa rek. dafa ne ci leeli aw ñam te ku ne xam ne siyaaba ji nekk na ci am paj te ku ne xam ne siyaaba ji nekk na ci defar ay yoon te ku ne xam ne siyaaba ji nekk na ci defar ay daara te ku ne xam ne siyaaba ji nekk kon moom dafa yaatal loolu dañ mooy diine moo di diine moo di bokk kon nag ñuy sonn kuy tariwe kuy jullit ku bëgg lu baax nga jàpp loolu loolu def xam nga boo def tànn ñu dem benn jagleel ci wàllu islam li ñu nag ba ci tey li mel ni orange ak wari ak yu ñoom ñoom ñoom amee nañ Touba économie bi gerte dañoo war a jëf ci Touba Calam ndax ñu dañuy fay te ñoom ñooy bénéficié jaar ñu jaar moom tey dañ ci am tiyaaba dañ ci am tiyaaba am ci yóbbu addi yëg loo jot ni ak ci ko joxe ñooy jëpp sëñ Saliou ko waxoon ñuy joxe 86 addi jumaa ji bi mu yóbbu addi am ak wax ak sama ma jox zone jox ko jox ak moom jox ko jox mu yëpp suñu baax ndax di addi yëg kay joxe ak ñuy jot jumaa ji comme ñoom ñoom ñooy jot ni dañ leen di fay war nañoo jëpp di demal ci tafeel ci bu baax a baax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàyyi seen i kàddu ko salaamaaleykum nga xaw a tuuti. bi nee na mënul nga ñàkk. may déglu. orange kooku danañ ko ci am incha allah ndax daal bi yëpp gëm nañu leen gëm nañu ne def yi mu koy def gëm nañu ne ko ko yor xam nañ ne yàlla mën na leen dimbale ci ba li ñu yére def a def li ñu te loolu leen ko defal leen taw xool koy jaayante kër gi yu bëri ci Maou Rahmati mii nañ ko ji te yaa ko ci indi woon yëpp nga xam ne jaayante moo defar yëpp jaayante moo moo gafaraay bi jaayante tabax jumaa ji jaayante moo taxoon suñu ablaat bëri fii laaj ak milliard avant deux heures ñu matale ko sëñ bi taxaa jaayante tax mu laaj 37 milliards avant deux cent mat na jaayante rek la Touba ci kanam bi dundee kon ñu bàyyi tànn ci Serigne Abdou Lahad moom Serigne Abibou mi nga xam ne mooy wax ci turu Serigne Abibou fàttaliwaat mbokk yi ñi nga xam ne ñoo digle na dugg bu dugg dana leer rek pour waaye xam nga tey la ñor te dañ koy tasaare ga daaw ba fi yëkkatee mu ànd ak sëriñ Aliou fekk ko bële ci këram bi daaw tam bi foofu jox ci biir Mokhtar mu ngi bañ ko ko waxee kàddu yëpp ñu yëkkati woon ba fi ñu mujjee toog ak moom ginnaaw bu mu doon sëriñ bi jataay ci ñu bët démb loolu daal moo waxoon boobu ñu fekk di wax mooy bu ma déggee mbooloo ñu gis leen rek ci sëriñ Aliou bi tam laaj am na yaakaar kon foofu la mu taxawoon ba tey fépp day wax ne day lu koy gën a dolli loi waaye lu koy lépp loolu naa dundal kon loolu lañ ci sant yàlla bu baax sant sëñ bu baax waaye di ko sant bu baax di ko ndokkeel di ko ñaanal ndax ginnaaw yàlla bu ko waaye ci kanam kan bokk na ci ñoom ko àggale wala mën naa wax ne moo ko àggale ndax kàddoom yooyu ñu waxoon ci koñ yi bokk na baax yi toppaat ci ginnaaw ba ci koñ yi waaye waa ci kanam ak noo ko ñëw boole ci nag ñu nekk ci yow bu ñu demee yëpp balaa ko liggéey dafa wax ne kenn dinaa ko

alxuraan wax ne boo yoon ko la ñuy wax ci fab la woon faaw moom ñi yàlla beewal ak loxo nga beewal leen loxo dañuy jiitu nag mooy jëfoo ci tubaab gi nga xam ne yàlla dogal na bi ñu tàmbalee liggéey bi ma leen fi ñoom yëgal leen ko ñoom ñëpp ñu teg seen seen pëstéef di yëkk seen alal tàmbalee ci sëriñ bi moom sëriñ Abdoulaye ku ne xam na ne moom la sëriñ bi denc dëkk bi ginnaaw boo xamee ne dem naan fa yàlla dogal na fekk mu ngi ci waaye jëwriñam si yëpp laa ñu ko fi teewal moom it mu rafetlu ko loolu ànd ci ñi topp ci ginnaaw ñëpp itam noonu lañ ko defee suñu Amadou Moukaw suñu Dame Atta moom joxe na ci jëfam suñu jaww ji jërëjëf suñu ëppam suñu Fallu moom it yëkkati na lu am solo def ko ci suñu jaww ji nekk bu xaale suñu jaww say ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci buntu kaw sëriñ bi yëpp buñ fa buñ tuddee Cheikh Sëñ Nour Habib ñoom ñëpp defe nañ def nañ seen jëf def ci seen itte ñu itteel leen lool defal fii ay ndaw ñu leen kon sant leen du a ñàkk ndax bu ñu leen santee jàpp nañ ne santaa nañ sant nañ njaboot sëñ Tuubaa yëpp sant nañ taal bi sëñ Tuubaa yëpp ndax ñëpp ci kër lañ aju te ñoom ñooy ñooy bokk ci kër yi kon bu ñu leen tuddee tudd nañ njaboot yëpp waaye nag bu mën a ñàkk yi ñu teew ci jotaay bi jiital sëñ xam sa ak mbokk yu baax ngeen fi nekkal ñun ñëpp itam ñu ngi leen di nuyu baax di leen sant bu baax ci seen tawaay bi ak seen itte ak seen jàpp Touba Ca Kanam dañuy seet moom suñ maam ma doon jobbe teew na fi ànd ak yow tam suñ baaw ak seen plan bokk taalibe yi bari kon bu ñu tuddee ñooñu day mel ne dana yóbbaale njaboot bi yëpp ni ma ko wax ndax mën ngeen ko lim ñëpp suñ maam jaamum suñ Muntaxa mi ngi fi moom itam ànd ak yow tam moom it ñi koo xam ne ba Touba Ca Kanam ñu ba tey ku ñu jàppale woon ku ñu jàppale day xalaat ak di def alala fii jaww ji nekk ba bii léegi nag ñu moom Touba Ca Kanam la ko waaye nag boo leen kilifa ku fi ñëw gis nañ la xam nañ ne teew nga yéen nañ teewaay bi amee na ci noonu tam tudd ñëpp nag des koo moom waaye ñi tudd ñi kilifa yi di bokk yi yóbbaale nañ ñëpp amoon nañ yéen képp ku fi teew ñu tudd na teew amoon na yéene pour jënd itam ñu ko gisoo pour nga jëfandikoo waaye ku ne xam ne ne jotaay bi yàgg na xat na te waxtu wi jot na te waxtu wi itam monsieur bi ku ne xam ne ne ñu ngi soññee loolu mooy tax xëy na duñu mën a jënd bu waaye kenn ku moom mën na ñàkk ñu jiital ñu njaboot bi waaye. loolu yàlla it ñu ngi sant mboolem koo xam ne yëpp ci sa jaayam ci ko ci liggéey bi ci ak boo ko ci defee ak noo ko ci defee xëy na am na ay benn benn yu waxoon ne ñu ñëw ndax xëy na ñu njëkk a jëf te seen defi rëy na waaye dana xaw a jafe ci ñun ndax ñun bi moom boo duggee rek day xaw a métti. bu mel ne ministère bi daal ngeen teel a yónnee war nañ la ko yegg pour jot moom itam ñu suñ boobaa ne leen ko xam gërëm bu baax ak ñeneen ñi ci toppaat ñëpp la ndax moom daa leen di gërëm ñi ci biir waaye itam ñu ngi bu baax ak gërëm seen laata. nga xam ne yàlla dogal mooy néew bëccëg danañ ko teewoon ci ñaari anam benn bi mooy jiital di ko jiital ci néew bëccëg mu jiite ko te jëf jëf yoo xam ne dañu ko war a jëf waaye di ko tànn nag ci wàllu laata teel na fii ndax boo xam ne yëkkati na xaalisam boppam teg ko ci wala bëccëg bu yëkkati wala bëccëg bu yëkkati na ko yow doo joxe ba ne bu ñu soxlaa mu àndal moom ci liggéey kon néew laata yi dañu ko baax di ko sant koy ñaanal liggéey bi bu sëriñ bi léegi yàlla na am na lépp lu ci bëgg a def itam yàlla na ko def na mu ko bëgg ci barke sëriñ Tuubaa waaye itam boole na koo xam ne jëm nga Tuubaa ci kanam ak boo ci jëfee ak moo ci jëfee ak jëf ci boo ko mën a jaarale barke Tuubaa ci kanam li jiitu tey ak tey ak lu ci jëf gannaaw ñëpp nañ ñu ne leen sant leen gën sant yi itam waa Tuubaa ci kanam nag ñi nga xam ne li ñu wax wolof naan lu ci jàng te ñooy jàng te ñooy ñi nga xam ne ñoo sos liggéey fondement ko di ko taxaw defal ko ak suuf ay na lu mel noonu buñ ci tuddee lu mel ne suñu bataay bii moom dana mën a yóbbaale suñu bopp teel bi bu dee nit ñi li ñuy taxawale tam seen ci wàllu ci nga xam ne yàlla dogal na mooy bopp naa bi moo nekk ci loxoom ak ñoom ko àndal ñëpp moom tam seen temp ñu ngi ko teg ci loxoom fekk ko mboolem ñu àndal liggéey di sant waa Touba Ca Kanam ñëpp nag góor jigéen mag ndaw bu jëlee ak sax di sant ñi ci réew mi di sant yëpp ak ñi mu ne waaye def la waaye day jàmbaaw lool lool ci bañ borom bi tëlee buñ toll yëpp yëpp ak ak ñu ngi bàyyi xel liggéey ñoom itam ñu ngi leen sant suñu bàyyi leen sant bu baax di leen jaajëfal di sant bi am nag kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam liggéey bi ëpp doon naa ko lay suñu tàbbal si liggéey bi ñoom itam waa Touba ci kanam ñu ngi leen sant bu baax a baax ndax seen taxawaay te ku liggéey bi ak ginnaaw yàlla moo ko ndax jëriñ bi ma jëriñ day tax a doon jàmbaar waaye jëriñ yow ci am nañ ci àllum gën day tax doo dox kon nag yàlla dafa xeexale na ay jëriñ yi ma jëriñ sëkk ñoo xam ne seen itte yëpp jox nañ ko liggéey seen ba yëpp génn sëñ Tuubaa seen yéene seenu liggéey jëlu dëkk Sëñ Tuubaa bi mel ne Màkka ak Madina dañu koy wax kon ñun waa Touba Ca Kanam ñu ngi leen sant di ko seeral mbooloo lépp di sant mbooleem koo xam ne mas ngaa jàpp ci Touba Ca Kanam ak moo ci jàpp sant nag sëriñ bi si mos ngeen xaar bi ñuy def nga xam ne ginnaaw bu ñu teewalee sëriñ bi liggéey bi ñu ko tàmbalee suñ ci def ñoo boole woon ak moom na ko na nga ci jàpp ànd ko ak ñoom di jàppale loolu itam def ni ciite ci dara ndax nit boo ko sëñ bi waxee ba mu julli sëñ bi rek daal ko wax mu ko xamal ne sëñ bi boole nañu ñoom naan nañ moom liggéey fekk na bu ñu demee ci bii sëñ bi waxoon na ko ne danaa ko woo waaye bu ñu ko woo wax ko koy daal dinañu woo ci saasa mu dem ba mu toog waxtaan ak moom bi waxtaanee moom leeral ko liggéey bi mu jàpp ci ànd ko moom ñi nga xam ne ñooy wàllu suuf ñi nga xam ne ñooy wàllu pël yeeg yooyu mu woo leen ñun ñëpp ak waa ONAS ñu daje teewam ak waa Touba ci kanam ñu waxtaan mu wax ba nga xam ne moom jàpp na ne mooy tax liggéey bi tax mooy tax mu mel ni suñu bëgg loolu lépp mu def ko loolu ba ci yëkkati alalam dox defa ko ci kon moom amee nañ ko ak kenn ba Touba Ca Kanam bu ñëwee ba tey ñu ngi ciy jàpp xalaat te jëf kon suñu bëgg ñu ngi koy sant bu baax di ko seeral ñëpp di ko ñaanal yéen ñi nga xam ne suñu baax yi baax yenn nañ ko ko yàlla na ko suñu borom jàppale kon bàyyi bu kawe jox ba suñu Touba sant bu baax itam soxna yi Touba Ca Kanam du ko teg ci soxna si mag yi moom tamit xel yi moom jàmbaar moom it bu ko tegee ci loxo mën na ko jot ci soxna yi Touba Ca Kanam yëpp bari ñu kenn ñun ñëpp ñu ngi ci teew ginnaaw loolu nag cant gi tey yéen ñu sat liñ ko wax dinaa ko jot li ciy jiitu mooy xam le ne Touba Ca Kanam de moom daala judd ñu ne liggéey suñ Touba képp tam bu néew kenn mu jiitu kenn suñ bi la tàmbalee suñ bi la ñu wut tam ngir ko kóor bi waa sa jël fekk kenn ci toolam a dugg ak daa fas yéene kenn ku ne la nga fekk jàppale la bu dee wàllu meew yi daf la daf ñu ko jiite ci beneen bi fii waaye ñëpp mu yow meew waaye li ko waxaale ba Touba ci kanam jigéen ba tey ñoo ko wax ñu jàppale ci ànd ak moom moom Touba ci kanam amuñu boobu jafe-jafe ndax xam na ne Touba ci kanam ay benn bi fii Touba rek te moom ñu na bokk ci ca lool kon li ñuy def xam na ne donte dara nit ñi koo xam ne maire bi la waxoon ñu koy def ñoom maire bi ñooy teew ndax maire bi Sëñ Tuubaa ko moom dëkk bi Sëñ Tuubaa ko moom ku koy defoo Sëñ Tuubaa nga koy defal kon loolu suñu yéen bëgg na mu leer ñëpp ñoo xam ne Tuubaa ci kanam daay ñëw kenn ku ne dañ la dégg si yéen a cee jàpp jàppale la bu dee ñëw wàllu ndox mi maa wax la ñu ngi leen sax ñooñu suñu Tuubaa gi ñu ngi ci ñu ngi jàppale te ñoom ci wàllu ndox mi buñ toll wet yëpp nag sa fi na amaan mën see na tudd daal wet yëpp wa tegtal yi dëkk bi yëpp waxaate ma ko teg ma ay jàmbaar la ñoom ñoo ënd nañ am ni ñëw nañ teew ñu leen sant baax ñeneen ñoom ñoom ñoo bokk liggéey benn liggéey kon kuréel yi dina ci yëpp dugg nañ ci biir liggéey kon suñu bi nga xam ne ne Touba Ca Kanam du lu beew ne yoon lu beew ne Touba Ca Kanam dafay ñu lëkkale yoon yëpp ba ci naan defal ko suñu yoon ndax dëkk bi dem mooy nekk yoon bi kon loolu sëriñ bi bëgg na mu leer ba ñëpp xam ne Touba Ca Kanam doonu lu jublu loo xam ne dafa ñëw fekk am na nekk mu bëgg koo ñor bi bu ñëw ci moom léeg-léeg ñenn ñi rek lenn leen mel na mbooloo mi mbooloo Sëñ Tuubaa dëkk dëkk Sëñ Tuubaa ñëpp bëgg dëkk Sëñ Tuubaa bi jar rek ñoo ko ñi ngi sant ñi nga xam ne jaayante nañ te yàlla dogal na ay jullit lañ waaye xëy na yeneen tawee fa lañ bokk te mënoon saa yem waaye ñu gis lu baax xeer nañ lu baax ñëw dugal seen alal waaye nag jaxase nañu koo xam ne lu waaye jaxase moom soo léegi ah, jaxase moom jaxase moom ñu ko dugg lool nag képp koo ko koo xam ne soo ñàkk dugg na ci sëñ Tuubaa bàyyi woo sama xel ndax moom nga waxoon na ne képp ku ko liggéeyal doo bëgg rek da ngaa laajal sama bopp képp koo ñor sa alal sa alal bi dana baax képp la fa des dana biir na dana yor te sëriñ bi jox ko sa alal suñu laaj bu doon dawal jaamu ma dina ko kon sëñ Tuubaa sa alal dana yokk ko sa liggéeyal ko dana jox sa alal kon ñun ñëpp ñu ngi ko lépp nañu ko sëñ Tuubaa dafa jéem a dëkk bi nga xam ne dëkk boobu du moom alxuraan la bëggoon yàlla yonent bi alxuraan tudd te mos jaate muy Touba Touba mooy dëkk boo xam ne boo ko mos a tudd xaatamu sëñ bi dana bëgg yëpp xam ne sëñ bi laa bëgg biñ nekkee ci dugg bi lépp comme xëy na ñu def man de àggale ko ba bés dañu ko xam ne maanaam mooy Touba Touba bi dëkk soog naa dëkk pour yàlla kon képp ku ñu luy tabax Touba yaa ngi àggale yéen a sëñ Touba kon daa waxoon ne dëkk bi day dama dama koo bëgg dëkk bi bëgg ma xëy na bëgg ko. suñu noonu suñu maam la mu ne dëkk bi tànnal ci xëy jii boo ci bëgg yow ma ma féete laa moom Tuubaa tànn ko ma ne Tuubaa loolu moo tax bëgg sax daana wax ne itam lu waay lu waay yàlla ci lu baax boo mën a jëm ak moom yàgg-yàgg Tuubaa la yenn ci am na jataay bu mos a woote njëriñ boo xam ne mu jëm la wax nañu tëbës bi la ci ci ci ci ci campagne bi ñu ci Tuubaa bokk na ñu doon wax suñu Masamba moo jiite woon jotaay fekk na ko te moom yàlla ko mën a taw fekk nekk jox sëriñ bi bu ma ko nekk ji suñu Masamba ak mu ne jamono ñu ñëw koo xam ne nii laaj na si ko dana tàkk ba dootul kenn laay ku ci bëgg a mucc mooy que sama tàkk ba di Tuuba jamono ñu ñëw koo xam ne dañoo la jël nit ñi nit ku ca bëgg nit ñi mooy que dem ci sama tàkk ba di Tuuba jamono ñu ñëw koo xam ne day seetlu yi danañ gis baat boobu la jëfandikoo yow yi ñu nekk nangu seen alal kenn du mën a mën a sukkandiku leen sama baat kon nag alhamdulilah daal di ne ñu def ci baat kon war nañoo tàggoo ba def ci baat bi ci doomu baat bi bëgg te suuf nit ñoo suuf bi ñu aar ñu dugalee suuf ba suuf si mën na seere yow lenn loo ko defal loolu laaj te mën naa wax ñu mën naa toog ba ci biir ñu génn donc suñuy wax na moo di ba fekk maa ngi dañ naa fu mu gën a yàgg wax ku ko toog ndax ñu xam bu muy génn ak waxtu bu muy génn mu toog ba nekk waxtu bu mu génn jox ko ñu wax mu jox ko rek waa na moom nit ñi dox ba génn ba ba bëgg a génn deel nekk ca aw leen ba ca aw leen ñu wóor ko ndax daal de ci ñamoon yu ndaw mënoon noonu ko mën a ko am ay am ne ji kenn ku ma fii fuñ fuñ si kenn ku mos a liggéey wala kenn ku mos a liggéey ku mos a liggéey kàngee ji ñi ci suuf kenn ku mën a liggéey ñëpp kenn ku mën a liggéey ku mën a liggéey ñëpp ndax buñ ci nekkoon seen jiw yi ñu doon joxoon ko yóbbu te seen jiw bi kat yi moo tax mënutuma nekk sama kër waaye ñoom teyee sama tànk yi ñuy dégg am na ñu bañ teyee bañ sa laajee dañu mënuñ faa góor bu ñu bu xam kenn suuf képp lañ saa góor te moom sax ngay tàmbal kooku nag ku yàlla boole moom war la xam ne kon dañ leen liggéey suñ tubaab suñu liggéey am njariñ mooy li topp suñ tubaab te dañ ko boole daaw asalaamaaleykum wa rahmatulah waaye dañ maa yónnee waat ay not sëriñ bi dina seereel cant ci sëriñ Seex moom sëriñ Saliou taxawaay bu doy bi nga xam ne am na ko ci ba ñu demee mu may Touba ca kanam lu mu déglu defal boppam mooy bàyyi ñu enregistré ko mu yëkkati ay kàddu xam nga ne xalaat bii moom waxoon na ko sëriñ Saliou te nee na ndax xalaat bi ni Touba ca kanam jógee nga xam ne li bëgg sëriñ Touba dana am kon ñu ngi lay seeral ak cant ci moom. seeral cantuk Serigne Bassirou man Serigne Khadim Awa dugal na juróomi million wax ay xaritam ci dugal fukki million juróom muy ñaar fukki million kon moom it na ci taxawaay bu rëy ñoo koy sant di sant njabootu Serigne Cheikh Baye de Tour Serigne Saliou Tour na ñetti million ak téeméeri junni soxna ay di dara yónnee na ñetti million kon ñoom it fépp dañ ko war a leeral dina seeral cantuk Gaynde Muhammadatul Xidma liggéey bii ñu liggéeyal yëpp ñoom lañ koy liggéeyee ndax ñoom ñooy xëy ci sëñ Touba mënoon nañu comme nag yam yëpp yemale ko ci sëñ Touba ndax fu war a jógee rek sëñ Touba la gën te yéen ko mu waaye teewul ñu dajale 1 million ñu def ko ci liggéey kon ñu dajale 1 million boobu amuñu koy fay weer dañ koy bàyyi te ñu ko Touba Ca Kanam kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di dalal ak cant Abdou Karim Fofana ministre ndax nit bu bokkee ci yow ba noppi jëf yoo xam ne jëf ci daara yi da ngaa war a yëkkati sa cant Serigne Touba nee na Cheikh Abdou Lahad ku liggéeyal Serigne Touba mu rëcc yàlla war a fay te bu ñu amul jël ay weesu jërëjëf di sant bu baax njabootu Cheikh Ibrahima Bousso ñëw nañ léegi andi fi téeméeri junni loolu it def lay def Serigne Souleye Ndiaye andi na 5 millions andi na 5 millions rakam rakam moo ko andi teg na ci Modjaay Modjaay teg na ci 1 million teg na ci 1 million dama ne millions yi dana ñëw milliards la sëñ bi taxaat suñu million borom jamono bi la ñu may naaw ci alu sëñ bi taxaat bi toogee premier projet cinquante-sept milliards la kon milliards lay ñëw milliards yi daa war a dem sëñ bi taxaat milliards yi daa war a dem sëñ bi taxaat ndax moo xam seen amee njëriñ sëñ Touba nee na jox leen ma xaalis bi maa xam ni yàlla bëgg ma defal leen ko sëñ bi taxaat bi sëñ Touba nañ ko jox xaalis bi kon ñu war a sant sant nañ leen waxtu bi laa jot maa ngi déglu waxoon naa ci njëlbeen nga ne li tuub ci nag mi xajandoowul ci cin li nañ ko ci def naa sa daan ku demal ci ku ne boo lakkee la ngay doon Thank you. sa waxee kilifa yi jëkk yëpp di ci am suñu si àll yi wax na ko moom mii ci seen kanam yitteeroo ko tax na ku ko xam ku ne da nga xam ne amul dara looy xool ci biir teg ndax moom ba mu jugee ba léegi yitteem yëpp soxlu leer lu Sëriñ bi dugg ci mbirum àdduna dugg yitteelu ko ñooy Sëriñ Tuubaa foo ko fekk bañ ca alxuraan ja ak topp soo tànn si jëwriñ ji ko yàlla def tawfeex mu nekk ci sa kanam war ngaa góorgóorlu bu baax na ma ne waxuma ko nag ñuy seere ko ndax ñu demee ma ko seere waaye nag dama koy seere ci doon tànn bi suñ tubaab ko topp ci ginnaaw bi suñ tubaab képp la liggéey du la jëmale du la jëmale ci ñaan bi te suñ tubaab waxoon na ne delleel moo yow te jaar ca ngir ma باقول فتكون تكفيني وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله kon moom nii ñu ngi koy ñaanal bu baax liñ xam ci moom ci yitte nag taxawal aussi yàlla na ko Serigne Touba dindi mu jëm te mboolem ñu bokkal Serigne Touba rek ñëpp a bëgg a yéene ndax bu ngeen déggee Cheikh Mamadou Mountakha mu fi nekk Serigne Touba laata muy doon Serigne Touba boobu ak Cheikh Serigne Moussa moo fi nekk dégg ngeen kàddu ñoom yëkkati woon ngi wax na ma ne Serigne Sidi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nee na ko ma la séenoon nga tàbbi ci kàmb li mu ne mooy musuma gis mu def ko mu yëkkati kàddu mu soññi tànn bi wax ci xalaat loolu te war a njaboot suñu tubaab yëpp nag muy sëriñ Cheikh am suñu choix sëriñ Ebo sëriñ Ebo mi kilifaam bañ na ko ba bu ma sant fi bitim réew mooy soññi tànn bi ci liggéey ñëpp kon amu ko des ndax boo limee da ngay jëm waaye njaboot suñu tubaab yëpp te njaboot suñu tubaab rek ñu ko waxee mooy képp koo xam ne bokk nga ci sëriñ bi wala nga yaakaar suñu tubaab kon kenn génn ci. kon daal Touba Ca Kanam ñëpp xam nañ dafa wuy si rek di Serigne bëggoon ci yoon bi yoon ngir jëmmal ko ndax Serigne ba mu nekkee ci njëriñ ba mu wootee ca ñaar fukki ñaar fukki juróom-ñetti boo waxoon wax ju am solo dem wax day gudd ndax jotaay bi nit ñi dina sonn waaye lan ca waxoon mooy lii. lépp lu ngeen sombati te lépp loo xam ne lu ngeen soxla la rawat na lu jëm ci néegu yàlla wala lu dem na ngeen ci góorgóorlu seen kem kattan mm-hmm. def ca la ngeen man ak la ngeen man ku ci seen kattan yam ngeen dem la xasaay wuti ko ci anam seen te ku ci seen ngeen xaar fa seen jaxal ak baax am seen gisoon waaye maa ngi dem waxtali ko lépp ndimbal doo xam ne bu daan fajale seen aju itam daan leen xañ seen ngor xañ seen xañ seen diine daa koy firi lu gudd la moo ko waxee ak dégg waaye kon lii ngeen la sëriñ boo xam ne ku la mën a sañal la yéen gisee ma sëriñ Tuubaa njàng ne moom da ngeen jóge dëgmal ko loolu nag gëm naa du ngeen ko wàcc moo tax 2016 bi ngeen sosé tey waxoon naa leen léegi seen daayira bi ñëpp ci am yaakaar li tax ñu am ci yaakaar nag mooy yéen ñi ko jiite dañ leen xam bu baax kenn xamu leen ci loolu liggéey Sëriñ Tuubaa kenn xamu leen ci lu li yàq ab daayira rek ak ñebe ak tàbbi ci la boobu ba léegi nag yàlla jëm leen li fi jaar bari na lool waaye kenn mosuñu tamit. tàmbalee bi seen jiw bi loolu nag mooy seen gànnaay bi moo moo leen jigi itam nag moo xolu taalibe yëpp noo ko foo xolu taalibe yi jëm rek fa la xolu Sëriñ te nattu naa ko ba gis ne Tuubaa ci kanam taalibe Sëriñ Tuubaa yi dëgg yëpp koo ko ci tudd cofee nag yëjjël ba mu ci am doo kon nag ni ngeen am yàqin ci ne seen liggéey bi Sëriñ Tuubaa noo ko kon yàlla yàgg ba li ngeen bëgg a liggéey Serigne Touba ci dëkk bi lépp mooy jëf ko moo tax seen jox ba ca des it Cheikh Issa Dieng dafa aw rek murid yi dañoo la ne wagoo bu bopp ba doxee rek ci ginnaaw yëpp dox la de kon nag yàlla dimbali na ngeen am jib du dox Serigne Abdoulaye daa wax am na si ñoo xam ne dañuy dox doxam gaynde am ñu suñu dox doxee mukki seet lañ ci mën a jël rek ma wax ko mu ne gaynde nag bu toppee ci ginnaaw bu yàggee de doxalinam jeex kon nag ku jub dëgg ma Serigne Touba war ngaa fexe ba topp ci ginnaaw koo xam ne day wax. dëgg la yéen nag ñaar defe na doo fi wax kon ngeen ko liggéey seen ñoo ko santaane. dëgg la raay bii ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mi njëkk a wóor ba mu koy woote ñëpp jàppoo na ne lu mënti nekk daal waaye yitteem ak procédure ak dogoom moo tax moo taxawal ko bañ mën a tàmbali jumaa Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Fallou ji booba jamono yu jafe la woon ndax dafa fekk crise bi door a jeex mhm. waaye doogu taalibe yi Sëriñ Tuubaa topp ci ginnaaw dam xam ne Sëriñ Tuubaa li bëgg dara mënu koo teew moo tax mu liggéey ko ba jumaa ji àgg lépp mu indi jële ko ci nekkam ginnaaw itam Cheikh Abdoul Ahad moo njëkk a tudd ci làmmiñam ne dana woote milliard wallaahi ba mu koy wax nit ñi dañoo jàppoon rek lu mënti nekk na mais sëriñ bi dafa xamul milliard wala dafa xamul fi jamono toll waaye la nga waxoon ci waxam waxtaan wu ñu rek mbay mu nangu xol yi nangu ko gën a te xol yi nangu nañ Sëriñ Tuubaa te loolu ko ginnaaw moom Cheikh Abdou Khadre Mbacké moom yàggu fi Serigne Saliou Mbacké moom itam yàlla def na liggéey bii ngay ñëw ngir fas yéene ko ci dëkk bi muy ci wàllu assainissement bi Serigne Saliou Mbacké moo njëkk a génne ci alali boppam wóotewu ko woon sax moo tax ñu bari xamul ko def assainissement ci ci biir bi loolu kon mooy li ci jëkk am ginnaaw bi Yusufa Ba doo ci am waaye Serigne Saliou moom njëkk a génne ci alal def ci lu ma six cent mille ci jamono loolu yàgg na def ko ci assainissement ngir xam ne Touba wuri Cheikh ak kenn ginnaaw ba mu ñëwee itam ñu defaraat assainissement bi yokk ko ba kanko alal nga ji ak kër doomu si Touba yi wax ba Cheikh Sidi Moussa Bakki ñëw bi mu ñëwee itam 2012 yàlla def mbënd mu metti am ci dëkk bi mu wóoloon ba ma ñëw mu xamal ma ne damaa bëgg tàmbali assainissement bi ci dëkk bi daa gis saa ne dëkk bi ndox ma bari na lool bedd yi kenn ñu fa jaar ne ko nag damaa fa séenee yëkkati un def ko ci assainissement bi tàmbali ba yàlla defee boo xalaat yëkkati ko war ko cee def bi ko ci jiite réew mi yëgee président Macky Sall ci la jël fukki milliards tàmbale ko assurance baa bi ñu njëkkoon bi ci jël bi fi di fi weesu kon yéen bu ngeen jugaatee xam ne liggéeyee Serigne Touba dëkk Serigne Touba bi ci woon ndax loolu mooy bëgg-bëggu Serigne Touba kon képp ku am yitte war nañ am positif war nañ am taxawaay war nañ ci jàpp lu baax a baax te jaayante yi ngeen def itam dégg naa ci wax yi ay kàddu yoo xam ne dugg na ma lool ndax ni ko suñu joom Serigne Abdoulaye Mbacké waxee Serigne Touba ci joxe ak dërëm ak ki joxe mi dara ci positif rek la dëgg la ñoo yem ci moom Serigne Saliou Mbacké daal wax ne addiye moo ko doom ñoo jéego wut ci dara ba siif googu joxe ca laaj kon ña tàmbali woon di joxe ñaar téeméer ba liggéey bi assi bi cant gi ci ñoom la war a tàmbali kon laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatala ulaa'ika a'zamu darajatan mina allaziina anfaqu min ba'du wa qaatalu waaye nag wa kullan wa'ada Allaahu al-husnaa ñoom bu ñoom mujjee ñëw te jëf-jëf bi matit tàbbi nañ ci biir ñee leen war ñoom war Sëriñ Abdul Ahad Mbacké danaa def buy doy génn ci woon bu laajee ko fere buñ li ne wax ne diw diw fa ne mu daal ne kala kala fa ne nga xam ne ni kër yi mooy baaxoo rek buñ gisul borom daal ji rek ne ko moom daa mel ne ñafe ne mu solo ma ne kala kala ñu lim ay tur sëñ bi ne ñoo ñeenti woyofal yi ñoo ma gën a itteel borom ñaar dërëm juróom yooyu ñeenti xeet bi ñoo ma itteel ndax possible kese la kon loolu itam man de xel xam ne ña ña am kàttan bu mooy jëf ëppoon ko séer ñi néew alal te mooy jëf kon ñëpp lañu war a sant sant ñi joxe ñaar ko joxe ñaar téeméer te seen possible ak seen ngoon toll foofu waaye ña joxe lu bari itam te am nit yi possible bu itam ñu sant kon nag ñu sant ñëpp gërëm ñëpp te xam ne ku ci dugal jëfam xam ne Serigne Touba. la ko defale seere si Serigne Touba boo kenn xamutoon ba Serigne Touba xam koy dina si seere waxoon nag Serigne Massamba ñu ne ko Massamba mu ne ko Mbacke mu ne ko na xam ne ak Dame Sall la Dame Sall mooy dencukaay mu ne ko kon de Mbacke ñu fas yéene doole laajte loolu mu ne ko loolu de képp koo xam ne def nga ko dana la ko dencal ba fa nga xam ne kenn mënu fa amul diw ne la Serigne Touba gi kon liggéey Serigne Touba nañ xam ne mooy suñu. moo war doon suñu yitte ndax moom ji te xam ne kon daayira bii nii waa Kër Sëriñ Tuubaa ak bokk yi rafetlu nañ ko bu baax ndax Cheikh Abdou ndax daa wax ne ku ñu jox addiya te doo jox addiya te yaa ngi mel ne ku wut sa wax yow gaalu mag ku fóot ay yéreem ba mu njëkk mu denc leen ko nga denc ba gaal ba fees boo yaakaaree ne. am nga yéere bu su waajtaay jotee ku arsé laaj yéere nga yëkkati ba ñëpp jot ba ba yëpp jeex bu fekkoon nga denc sa yéere yooyu waaj si biir gàllankoor keroog bi soo rek am nga ci. nee jox ay yéen te jox ay yéen maam Thierno dafa nekk ci kër Cheikh Abdoul Ahad ak yeneen kilifa am taal bi bu ko koo xam ne ak kilifa gi des yëkkati ñaar téeméer jox ko dem siyaar génnaat kooku nag suñu am sa man de damaa amul jaaxle man de damaa xamul taalibe yi dañoo amatul posté wala day gis lan mun na ko lu tax mun na ko kii na man de yaakaar àddina ak alaxira te addiyal ci noonu yoosuwul ñaar téeméer te daayira bi mu andi de wóor na ma ne te dana teg lu ëpp lii kon loolu néewatu fi ma suñu am ko déedéet teel a tànn bi yëpp ko suñu li ñuy joxe Sëriñ Tuubaa tax ñu ko joxe képp koo xam ne ñu ngi la koy jox rek ngir Sëriñ Tuubaa nga ko jàllale ci moom ñu ñu ko jaar koo xam ne ñu la koy te jàllale woo ko ñu jéggi la borom te ngeen góorgóorlu ci baax baax rek. te xam ne gëm naa ne Sëriñ Tuubaa nekk la ko ndax li tax mu def ko li yàqoon yeneen daayira yëpp yàlla musal leen kon nag yàlla nañ gën a musal te Sëriñ Tuubaa dimbale leen gàttandu leen ba fa ngeen bëgg jëm ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi ci dëkk bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa dëkk bi rek ko ñor ba mu mas a nekk te lii di di ngeen si am daal ndaxte wax na ko ci waxtaanoo 88 bi dama wax mooy diggam yàlla. diggam rasulullah diggam alxuraan boo ko ñeenteel mu dëkkal bi mosuñoo gis leneen lu ko ñor mu dëkk bi kon nag képp koo xam ne jur nga liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi war ngaa daloon xel ci xam ne Sëñ Tuubaa dana ci gàttal te Sëñ ko ndax waaye ko gis jeexal ko rek ci la Cheikh Ibrahima Fall daa wax te fii da ko waxee woon sax dara ko sëriñ bi sante kër Touba bi mu nekkoon lu mat kilomètre nit ñëpp jaaxle ci am ñu ñëw di ko wax ne ko xanaa di nga xamul seng ni mu jëfee fi ak fi anam toll suñ Cheikh Ibrahima Faty ne leen néewuma xawma seng waaye yéen itam xamu leen suñ Touba ndax neewoon nañ ko jaroon na nga dem ci sëriñ bi mu soppi leen ndax boo dee jaroon xaalis bi jaar bi dafa am ci réew mi bato yi ñëwut kon dara amut mu ne ko néew ma xaw ma sàngara waaye yéen itam xamu leen Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa du santaane mukk dul am te du ma sant mukk dul def laa ilaaha illallaah Sëriñ Saliou Mbacké dafa daan lu bari di wax ne boo ko Cheikh Ibrahima Fall liggéey liggéey na ko àgg liggéey bépp lu ci ne ay tontu des muy seng yaag pont yaag lépp ay tontu mooy loolu mooy liggéey Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daawale Sëñ Tuubaa liggéeyal ko yomb ndax day féetewoo coono bu bàyyi asal kon sant leen bu baax te ñaan li ngeen yéen ñëpp daal yàlla leen di Sëñ Tuubaa sëriñ bi di sant leen gërëm di leen wax ne lam leen waxoon rek na ngeen xam ne yitte mooy li am te yàlla defal leen ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñëpp toog sëñ Abibu wax na ci turu sëñ sëñ Abdou wax na ci turu sëñ Abibu moo xam muy télévision yi moo xam muy rajo yi moo xam muy journaux yi moo xam sax muy sonorisation bi di beralaat ak cant El Hadj Ndiaye 2STV di sant waa Touba TV ñu ngi koy def en di sant sécurité bi nga xam ne ñoom it booba tey ñu ngi ñu ngi sant ñëpp ñëpp maa ngi tàllal seen loxo jaayante bi day wéy ma soxna moom itamit waaw sëñ Ablaye Mbaye Pekh ñëwoon na ci yónnee na juróomi million kon jaayante bi day wéy ci kër sëñ Touba ga liggéey bi li fekk Touba bi ñu woo kër turandoom wa ca rek mu ñu dund wàcc kon na ñu ne sëñ Alaaji